bi rakki Serigne Cheikh Mbacke ak di ko gërëm saa su ne sama kanam di nuyu ki nga xam ne moom mooy Oumou Gueye ma nga depuis France fu ñuy wax Caen ca Normandie waaye nag dëkk Tëngéej di nuyu maam Kumba moom it fàttewuma ko maam Kumba mu ngi fii Bagdad di nuyu Abdoulaye Diakha bi depuis Paris 18 fàtte ma tamit ki nga xam ne mooy seen Saliou Mar ak euh, wayjuram ñoom ñëpp ak Kédougou bàyyi daam maar fàttewuma ci kenn di leen gërëm baax di leen sant di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp di ko ñaan ñaanal Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman fàttewuma Abdou Kandji fàttewuma kenn Sofia Diatta réew mi yëpp waa Caaroy géej mhm. ñoom ñëpp li ko dalee mbaar ma ñoom Birane Ndiaye Soña mhm. fàttewuma kenn nday dem waa kër ga fàttewuma ca kenn kenn fàttewuma ko maa ngi leen nuyu ñoom njiin laay jéen fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant bu baax dama leen a digoon nag ne leen insha allahu taala dimanche ni ki tey sunu borom def na nu fekkee ko soo fi ci laa la waxoon ni lii faaw mënuma koo ñàkk a wax loo ko nëbb nëbb nëbb nëbb di koo wax ndax mhm. dafa mënta nekk muy mbetteel goo xam ne damaa taxaw ba saag ndeysaan mu am ab xolub yërmande moo tax biig damaa yuuxu daanu ci bi ñu waxee sëñ Mbàkke Soxna Lo un marabout sans compte bancaire loolu mooy dëgg de un marabout sans compte bancaire waaw ab sëriñ warta am compte bancaire ndax lu tegu ci loxo bi waru cee fanaan am na ñu ko ittewoo mu xam leen lool mbaa mu jege leen lool wala su génnee sol aw dàllam su ne culxat balaa sori dina gis ku ko ittewoo noonu loo tax nu ne un marabout ne doit pas avoir de compte bancaire mm-hmm. moom nag c'était un marabout sans compte bancaire muy Serigne Bougane Gueye Dany bi dégg naa dafa daal ñëw fële ancienne maison mm-hmm. ñu daw ne Bougane boobu Bougane nekkatul fi ki nekkul gul fi nu nekkoon ci ancienne maison noonu mm-hmm. nee nañ ca meneen mbedd la nekkoon ñu daw yëg ne Bougane mu naan ne ko ah sëñ Mbàkke soxna loo ñëw na de nee na mi ngi ñëw mu daaw moom it daat ne kii moom day wàcc daje moom du xaar mukk seen bi yéeg ca koñ ba ca gol tàppe ñoo ma ko nettali nee nañ gis nañu bëggaan def loolu seen bi wàcc na day moom mu njëkkante daal di wàcc daal ne seen bi du yéeg moom mooy wàcc ñëw fekk seen bi ah xam na wareef nag de waaw xam na wareef dara dalu ko xam na wareef xam na lu jaadu waaw moo daamar daal di may jox mu ne riir ma fi mu ne ci caaro yi géej moso papa luy <laughs> daamar daamar mooy ñeenti tànk toog naa ci sëñ moodu Abib Mbàkke ne ko dama bëgg nga ñaanal ma buggaan jox ma daamar toog waaw ñoom ñëpp toog naa ci sëñ Ismaïla Mbàkke moom seen Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma buggaan kii ba jox ma daamar ku ma toog mu ne ma waawaaw soobe yàlla nan la jox daamar daamar din ma jox dafa am lu mu firnde ndax dafa am màggal goo xam ne ca Touba journaliste bu mag ñëw ci Cheikh Mouhamadul Abi Mbacke. ca Daaru Xuddoos. ma génn dem kër Soxna May ndekete journaliste bi waxtaan na ak sëñ Modou Habib. ba génn dem toog ci otoom di xaar sëñ Modou Habib. ma dugg ñëw daal ne soxna maam bu sa jaaj mu ah, ne ko ana sëñ mu ne mi ngi ci biir ma ubbi dugg mu ne ma waaw kay. diw waaw ma ne ko waaw diw waaw diw mu ne ma xam nga ko de defe naa ndax yéen a bokk lu ngeen yëngu ma ne ko waaw waaw mu ne ma ah, dafa ñëw da nga ko jox daamar mu ne naa ko ci ñaanal léegi ñëwal nu dem ah sëñ bi gën ma topp ci gën a am ñu dem ba muy bëgg dugg ci oto bi ma ubbil ko bunt bi sëñ bi dugg ma delloo bunt bi wiiri ndax sëñ bee ma woo moo ma ne kaay nu dem ma wiiri ubbi beneen portière bi dugg toog mu ne ma wàccal sama oto ci télé laa nekk sëñ Modou may dégg xam ne du ma fen sëñ moo Modou xam ne du ma fen mu ne ma wàccal sëñ du ne ah ma ne ko yow de biir na ma ne giñ naa ci barke sëñ Modou Abib Mbacke jëmm ji moom moo tax moo ma ne kaay fekke woo fan waxante bëgg a taxul ma topp ko de xamoo lu ma waxtaan ak moom mu ne wàccal ma wàcc ma xool sëñ bi xam nga sëñ Modou dafa bari nde ñu ànd ñoom ñaar dem waaye fanu demit xam naa defuñu fa ab diir yàggul dara ndax sëñ bi toogu fi sëñ bi ñëw dellu ci kër gi ak tàngooram ñëpp di ma wër ana mbay ngoone ana mbay ngoone ak dugg nañu ko soxna may dugg nañu kër yaa ngedda dem nañu booru kër sëñ Cheikh Saliou fu nekk wër nañ ma fa te fekk maa ngi ànd ak sama doom nu daw daal di may jiital ne ma kaay wuyu sëñ Modou ma ñëw sëñ bi ne waaw waaw waaw man de defu la ko man la ko def de waaye du dara na nga muñ di nga am daamar dégg nga di nga am daamar mu jóge ci sëñ Touba di nga am daamar sama doom yi jooy ngóone laa àndal ak libaas daal di jooy ne ko ñaanal ko ñaanal ko moo am daamaat kii du dara bokkul ak ñoom sax moo leen mën fuuf situation la rek doon koo xeeb rek waaw mais kii kii moo leen mën uh-huh. bokkul ak ñaanal ko sëñ moo nen dina am daamar topp na mi fan ma des ko fa diggante sunnatu ak daaru xuddoos léeg-léeg ñu daw ba saari mu ne ma di nga am daamar de wallaay di nga am daamar sëñ Tuubaa dina la jox daamar waaw gis naa ko sëñ dégg nga waaw yàlla bari na sutura waaw kay mm-hmm. sëñ Modou wax na ma loolu sëñ Touba jox na ma ko ndax ñitug sëñ Touba ma ko jox muy Bogaan Gueye Dany ñitug sëñ Touba moo ma ko jox su ne yulub tayif dongo yëpp dañuy jóg ne bëxal ñett ak sëriñ daara ak ñëpp xam ne Bogaan ñëw na waaw su su duggee tayif yi ak sëriñ daara yi dinañ xam ne tayif am na gan mm-hmm. barke borom Touba billaahi mm-hmm. ak yeneen yoo xam ne sax munu mën caa àgg demee ba ca kanam ñu egg nag ci yow di nga am ay oto yu bëri doo ci am benn garage ngay am yow garage bu def ay oto yu dul jeex barke borom Touba Mbacke am kuma digol. Sénégalais yi nit Sénégalais la ko ci daan la ko am na ku ma dara jëy borom Touba koo xam ne fi ma ca koo xam nga ko d'accord yàlla baax na yàlla yàlla na lépp ñëw yàlla na nga dawalee ko ne ma su excès di nga am di nga am billahi barke borom Touba inshallah na nañ bu baax da ngay am yu lundi nga dawal bi mardi nga dawal bi mercredi nga dawal yow amul rek inshallah mënul baax na kontaan nañ bu baax a baax ci mère Père May Ngoné Fall dañuy euh, daal di gestu nuyu suñu ay invité bonsoir prosper bonsoir ça va alhamdulilah tey yaag sa xarit euh, blanc ngeen woote de sans hmm. problème ah, tey tey pee ngeen woote euh, sama sama xarit mon ami mon frère waaw uh-huh. n'est-ce pas di am encore satisfaction bokk ak moom plateau bi uh-huh. di nuyu ñi ma ko bokkal aussi di leen wax bonsoir di nuyu ñi seetaan fii Sénégal ak à l'étranger n'est-ce pas di ñu bëggee n'est-ce pas pour bañ ko fàtte rek di ñaan yàlla père euh, lii mu wax yàlla na li njiglaayam mm-hmm. lu mu ragal yàlla boo ko ci gis n'est-ce pas waaw ah, nga dawal ko mu nekk sa njiglaay amiin voilà ba te prospère ma dolli la tuuti uh-huh. gis nga kooku na ma mujjee moom xamaa mm-hmm. ne war naa teel oto ba mm-hmm. dem nanu ba xam nga ñeme ma ko ci tele Famara Diédhiou international. yónnee ma xaalis bu baree baree bari. jox ko yaayam. xamal ma. kii ba Xadi Ndooy Jaañ mu jël xaalis ba jox ko ne ko demal jox mbay ngóone mu sànq xaalis bi. waaw yow waaye yàlla. Ah, kooku kooku kooku doy na waar de. Famara Diédhiou yaa ngi may eh, boole ma ak <laughs> boole ma ak kooku. yàlla bu ma gis. comme li yàlla nañ sa jiglaay boo ko ci gis. ma fen voilà effectivement ba Xadi Ndooy Jaañ la ko jox yaayu Famara Diédhiou. Xadi Ndooy Jaañ jox ko ne ko joxal ma mbay ngoone après voilà ba léegi France daal di ko dégg c'est bien c'est bien loolu baax na. donc du dara kenn du ko dégg. donc amul problème kenn du xam lenn rek laa la si yëpp. waaw moo di euh, comme ni ngay def ci plateau bi damay ragal nga dawal circulation bu yàgg rek droite rek génn taxaw. Ah, ci oto bi maanaam ah, waaw ah. ni ngay def ci plateau bi jékki-jékki rek jóg taxaw circulation amul loolu de jékki-jékki rek génn sa oto rek taxaw rek rek kaas xeex dugaat amul loolu de. nga déet non dafa am lu ma koy dégg gis nga barki démb Prospère. barki dem Prospère. doonoo toog ab diir. Ah. chimère woo ma ne ma carte téléphone ma wuyu de laa lay wax ñu bari xamuñu ko. Mm. bi ma man xam naa ne kii fa mu ma woowee moom doomu wéetu fa. Mm. <laughs> mu ne ma waaw père na def ma ne ko maag mu ne ma foo nekk. ma ne ko ah maa ngi ci kër gi mu ne ma dama laa gëj a gis seen ba seen TV ma xam ne kii biir baa ngi daw waaw waaw non biir bay daw ndax daa am lu mu bëgg a xam te xam naa ne mbooloo maa ngi ko ndax maa ngi dégg ay kees sow ma ne ko lan la mu ne ma mbaa yaa ngi maytu oto yi ak yéeg beeg wàcc bi ak kii bi ma ma ne ko loolu moom aw ayam jeex na ma ne ko aw ayam jeex na mu ne ma non bul di dugg super yi ak kii yeeg ma xam ne biir baa ngi daw bëgg na kii simeer simeer simeer bëgg na ma ne ko am naa am oto damay damay daaneel rek waaw damay ma ma daaneel non simeer simeer may ma ma daaneel waaw di eh. kontaan vraiment <laughs> comme ni ma wax rek ah waaw waaw di nuyu sama ay euh, rakk yoo xam ne ñoom ñu ngi marché Alizé ah hmm. heure bu ñu émission yi ba pare ñoom bu ñu xëyee lendemain

waaw tabax fa kaala macha allah mu nekk taxaw suñu wet surtout nag moment bi ñuy wax waxu mbas mi. Mhm. mu taxaw si wetu population bi di def li ka te taxawam du tey am na xale yu fi may bourse ba ñu am seen licence. Mhm. wëlbatiku mu wutal leen ay stage mhm. lépp si mairie bi ñu di a remercier ndax loolu la ñu doyee maire musuma ko bëgg a def nag mais tey dinaa ko def exceptionnellement. ba pare kóllëre gu mu am ak mag ña nekk sa gox ba. mag ñi génn àdduna sax Barthélémy Dias mi ñëw di taxaw taxaw ba mu waroon taxawu.

Nous sommes exceptionnellement sama tonton tonton Ablaï, euh, Ablaye Li, depuis Thiès tonton Ablaï, je te fais un gros coucou. d'accord merci merci maman. Aziz nous sommes la de la dalal di chez dalal bu émission bi. tout d'abord je salue mes parents. Nous mm-hmm. ngi nuyu sama papa depuis Tali Nous nuyu sama yaay ma ko ci kër am tey loo xamante ni benn naqar la boo xamante ni métti na ma mu ngi benn frère boo xamante ni c'est un frère proche dogo dogo bu Sénégal dogo ko waa joo xamante ni ñëpp la siqal jàmm mm-hmm. tey dama yow ay onze heures ñu woo ma tàggee ma ko di ko jaal famille di ko jaal ñi may seetaan ñëpp ku xam dogo xam ko ci mbaax oyof mais àdduna moo demee nii dogo faali c'est un frère waaw Dogo fii la dëkk Mamel ci ginnaaw maa ngi koy jaal di ko jaal xaritam yëpp ñu góor ñeeg ñu jugee ak famille surtout jugee foofu di nuyu sumay xarit yi may fréquenté chaque jour ñi nga xamante ne ñooy bokk fi ñuy nekk fee ci Pikine ci centro bi ci buntu uno bi di nuyu mafia bi yëpp comme que nag émission bi dafa war a neex kon jarul ñuy jël temps di gën a. ayca waaw s'il vous plaît parce que instant bi guddi na il faut que ñuy xalaat aussi ñi nekk à l'extérieur bu ñu guddalee ci nuyoo bi rek day compliqué ci ñoom toog xaar bi ñoom dañuy dañuy far gedd daal loolu mooy doon problème bi Sophie bonsoir. bonsoir ça va ça va très bien alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu d'abord yéen ñi ñu bokkal plateau bi di tàmbale nuyoo bi si papa sama papa di ko yéene bu baax a baax ndaamaaram bi moom yàlla na koo jikk te ñun ñu dund ba mën ko jëndal ay oto. amiin euh, di nuyu tamit euh, tous les membres de l' association les racines de l' espoir et ma famille. Euh, Sophie di wax rek que ne encore une fois émission gis-gis bi papa xale yu ndaw yi sax dañ koy seetaan donc ma koy ma koy wax Sophie ndax dama romb ay xale yu ndaw moins de 10 ans interpellé ma. Mhm. di ma wax ne dañuy seetaan donc Saint TV a réconcilié la jeunesse.

actuellement dafa dul bokk ak fi may àndee ak ñoom te tamit duma leen ci leeral dara démb ak bërki démb di yor doom ndeyam sëy si indaale ko mu màgg ba yor la ba jariñ la yóbbu la màkka kenn du xam nu mu sant

ndax di nga ca jëlee ndam wala di nga ca am maanaam yaakaar mu tas muy déception maanaam nga jóg defar ko yar ko toqi ko dugal ko néegu góor ba mu màgg nga dugal ko alxuraan dugal ko école mu jàng dem ba am njariñ ndax ñaare su doon démb ak bërki dem waaw waaw mhm. fierté daf ci am da ngay dem ba day gën doom yi nga jur nga dem ba dootul xam baayam nga dem ba su bis jotee sunu ne ñu ngi koy ñaanali jabar su nu ne doon dem ca baayam sunu ñëwee su baayam gore dina na yaruma ko yaruma ko dama ko jur rek maa ko jur ci sama géñoo gi nag waaye lépp lu baay di defal doom diw mee moo ko defal loolu demb la woon ak bërki démb fii nu toll tey ci jamono jii ñu ne ndax loolu ba tey am na mën nga cee jëlee ndàmbal la ah waaw waaw fa ndox daan taasoo ñëwee di fa fekk tepp-tepp dina am kay dina am léeg waaye nag safaan ba moo ci ëpp ndax nit woote na dana ah, diw mii de baayam bi ñu ngi ko tëj waaye lii ñu jiñ baayam bii de amul ñu ne lan la ñu ne danga koo fi viol nee nañu moom moo tëddee doomam ji te fekk déedéet ñu ne waa loolu nu mu mën a demee ñu ne bàyyi bu njëkk ba ka ko jur moo ko manigancé ci loola ndax am na xeen bu dox ci seen diggante te bëgg naa jotaat ndeyam mënu koo jot moo tax mu tuumaal ko ba lii fekk ko ci ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne kii kat nangam fekk na ko ci nangam wala bëgg na diggante bu tas ëmbam bi mu ëlbatiku jiiñ ko baayam bii mm-hmm. ñu ne doomu jiitle def na loolu ñoo ko wax de waxuma ko mm-hmm. doomu jiitle bi kan la jiiñ kan la euh, ki koy yar ci biir kër gi moo yar ci biir kër mm-hmm. moo nekk ak moom moo dëkk ak moom ñu ne tuuma la tuuma mooy lu la waxal te laaloo ca mën nañ laa tuumaal it tuuma joo xam ne dëgg lay doon waaye tuuma ñaare dinañ la tuumaal ci loo xam ne. sab loxo laalu ca. Uh-huh. léeg-léeg nga gis am na ñu tëdd ci kaso bi ñu jiñ leen viol. Uh-huh. seen doomi jiit leen moom moo leen ko jiñ. Uh-huh. ñu tëdd ñu ngi ci kaso bi ñu ngi ci loxo am na ñoo xam ne illaa abada dootu dootuñu jag dootuñu baax xamatuñu gën géej nañuy sangoo ba set tey doomu jiit leen moom moo leen ko teg. loolu am na. naam it safaan ba dina am comme ni ma leen ko expliqué. ci bàyyi jiitle bàyyi jiitle dina defub safaan waaw ëlbatiku def lu defuwul def loo xam ne ci doomam ba mu koy def su ko defee pare di nga xam ne kii jëf na jëf loo xam ne du jëfi nit kii dootuma ko qualifié di ko boole ci nit te fekk ne soo ko toppee fekk ca ab tànkam moom bàyyi jiitle bi moom moo ko def waaye kii dama koy déclassé dootuma ko ca boole mhm. duma ko boole ci ñoom mhm. ndax dama naan il ne jouit pas de ses facultés mentales donte kon te yoon na oto taaxum kaw la dëkke am na alal waaye ni mu agiré ak ni mu réactionné bàyyuma moom moo koy def d'accord papa dañ naan doomu jiit la du doom kooku waxin la ca kocc barma mhm. ca kocc barma faal mooy ca ñeenti jubbam yëpp mag mag naa ba cim réew jigéen soppaltewul wóolu mm-hmm. buur du bokk mm-hmm. doomu jiitle du doom kooku moom kocc moo ko waxoon loo ci xalaat ca jamono yooyu de la kocc wax ba jafe te firnde ba buur demee ba ne day rey kocc nu wax wax wax wax wax tinu ne doon koy rey ban demee ba di ko bëgg a tër di ko rey xaftaanu doomu jiitle bi mu soloon bi mu soloon nga xam ne doomu jiitle ji moo moom xaftaan bi mu jot ko muy doomu jiitle dem ba doon waxambaane tol ni moom ba nu demee ba di tër bëgg koo rendi ba gasum kan doomu jiitle dafa daw yuuxu ñu ne ndeysaan xam naa lim ko yar a tax mhm. eh waay gone daw na la lan la looy jooy mu ne sama mbub mii laay bañ deret ji takk si su mi leen ko doog koo rendi mu andi firnde bi sama mbubb mii mu sol moom laay ban deret di takk ci summi leen ko soo ko rendi waaye loolu de la kooku nag kocca ko wax man waxuma de dëgg ku mu ci neex nag ba Europe ba extérieur soo duggee soo dalee sama kaw maa ngi ak sa tontu. Mm-hmm. mën naa laa xaar. <laughs> bu yegg si rek verem fekk. barke borom Tuubaa dawuma ci kenn. mais papa xam nga sàkkuwuma ci ku ma gërëm. dawuma ci ku ma xarab dañuy wax conflit de génération si gis-gis. waaw laataa may jox kàddu gi suuf yi. ñu gis ne fi ñu toll nii. Hmm. Euh, des fois mariage yi day fekk par exemple ku jigéen ki am doom wala ku góor ki am doom. mais ci say wax dañuy fortaatu ne. fi ñu toll nii instant bi ci jamono ju ñu nekk par exemple yéen autant loolu mënoon naa nekk parce que da ngeen doon dund ci famille bu mag doomu nijaay yeeg kenn kenn du xàmmee kan mooy doomu kan mais sa doom la mais du sa doomu jëkkër euh, suñu ñëwee nag bu amee doom ak keneen ki mu nekk seen doom yéen ñaar différence bi day dañ koy remarqué parce que ba léegi maanaam ni ngay jàppee doom ji nga jur ak ndeyam ñi màgg doo am vingt ans ans 22 ans 23 ans des fois dañuy toog di nettali comme quoi que ni ñu leen yaree ak ni ñu yaree seen yeneen seen yeneen i morom ci kër yi parce que ñoom ay doomu jiit la leen woon donc yooyu yëpp dañ koy gis euh, mu nekk loo ne c'est pas facile à gérer parce que sa doomu bok amana mënul bok ak doomu keneen wa fofu day soko ko indee day xaw 10 hmm ndax ka wax loola mhm. góor ga mu hmm mu yor ko ci kërëm góor ga de xeeb aw yorinam Mm-hmm. yor doom jur ko ci sa biir mu am mag yoo xam ne yaa ko jur rek yaa ko jur sa biir yaa ko jur ndax yaay denc ndeyam mm-hmm. ndeyam sa ginnaaw lay jàll mu nekk fa xamul kenn mm-hmm. doom gu ne kooku sax soo ko toqee soo ko jàppalee mën naa am mën naa dem ba yow lay gën a jariñ xale yi am na ci ñu xam retour ak ñu xam ak ñoo xam ne tey loo la labal ci këru dama ne waaye nga ba ca diaspora ba di liggéey loo xam ne di ko jox baayam boo xam ne juru ko ci giñoom mhm. ak di ko defal loo xam ne wallaahi doom ya baayam jur ci mhm. biiram duñ ko ko defal di ko yónnee ay oto di ko daggal kër di ko jox ay million mu di ko suivral ay chantier lu ko neex def ca xaalis ba mhm. lu mu ne noonu la moom la lu mu ne moom laa fay ci gros bi soo ko waxee mu gëm ko lu mu ne moom laa fay ci menuiserie bois bi mu gëm ko lu mu ne moom laa fay ci installation électrique bi ak plomberie sanitaire bi mu gëm ko lu mu ne moom laa jëndee mètre carré de carreau mu gëm ko ci chantier bi. mu confier ko lépp te fekk juru ko. Mhm. waaye nag moo ko yar. moo ko toqi xamul kenn ku dul góor gi rek la xam. d'accord papa donc dañuy ñëw ci suuf yi dañuy ñëw ci suuf yi comme ça ñu mën a continuer thème bi parce que gis nañu la plupart ñaari nit la ñuy jote yenn saa ci seeni doom lañ koy fayu. est-ce que c'est toujours est nga jël sa doom confier ko ko nit xam ne ñu ngi dund ci même territoire que jël seen doom confier ko nit. moo amaana seen doomu nijaay la amaana seen xarit la amaana keneen ak keneen la. Mm-hmm. mais est-ce que dina am xolu téel la sa doom comme yow ni nga ko bëgg a téye. Mm-hmm. parce que balaa sa doomu bopp na koy téye bokkul ak keneen nu la koy téyeel. waaw waaye moom it sa doomi bopp yërmande ji mu mën a am ci yow. Mhm. ñaare di am doom yoo xam ne. duñu ko mën a am ci yow kooku aloo fa ko ak kajoor ak bawal mhm. ñu ne doom sa doomi bopp mhm. ñu ne alal boroom ñu ne góom boroom góomu jàmbur naka boroom di def ak na mu koy aaree du ca fekk ba du fa nga gaañu fii bi nu nekk ak gune daan nanu gaañu gaañu boo xam ne léeg-léeg daan nañ dox ba si yàgg nu joggi nu boo xam ne lañ cee yëg ñun rek ñoo koy yëg muy góom bu mitti boo xam ne day mitti boo xam ne góomub jàmbur boroom dëgg doomi jàmbur doomu doomi jàmbur mm-hmm. Mm-hmm. alalu jàmbur sa alal mm-hmm. nga yor sa oto wala nga yor saw fas wala nga yor sa kër wala nga yor sa daamar wala nga yor sa tool wala nga yor sa jur ni nga koy sàmmee di ko xoolee di ci am yërmande keneen koo ko jox du ko amee noonu. d'accord so. jëlal ab oto jox ko nit tey wallaahi su ko neex fu neex la koy dugal mën na foncer ci suuf alalam waaw foncer ci suuf si nëq embrayage bi lakk disk ngay wax mu atteindre plateau ba. lu tax may dugg ci suuf si di ko forcer. xool naa fii xam naa ne kii su ma duggee suuf si du ma dem fii zone sablonneuse la du ma dugal sama oto naa ko gaare ca kaw. dëgg la xam ne oto bii mën na suuf wala mënul suuf. d'accord pièce sangam paan na du ma tripoter du ma dem duma jënd lenn li li may li li fa nekk moom laay jënd original bi ñëw def ko fa. du ma tripoter dara ci yoon laa koy teg duma ma dara. demal defal ma nangam dem gonfler ma facture wala nu gonfler ma devis wala nu defal ma dara confiance je yaay suivre suivre de A à Z Je suis mhm. tax. alal de borom di ko la alal euh, Sophie thème bi je importance parce que bëri na ci ñu bëri Je suis je defaru bëri nañu bëri tey seen àdduna yàqu na thème bi moo tax parce que éducation ñu ngi ci société boo xamante ni boo duggee ci ci ci ci ci famille di nga ci mën a jël cinq yoo xam ne par exemple ñeneen nit ñoo leen yar ak cinq yoo xam ne si biir kër gi lañu la la ñu yaroo damay taxaw ci fierté nit d'abord dañuy ne mag yi dañuy wax ne ku yaatu dënn mooy mën a yare une personne qui sait prendre sur sur moom ku yaatu dënn moom mooy mën a yare nit yar na nit mu màgg tekki te juru ko nit yar na jur na doomam dénk ko sëram comme démb ñoom ni ñu doon def demal ci sa kër baay diw mu yaroo fa màgg bu màggee sax lay xam ne diw du baayam te parfois sax ci ay coowal kër lañ koy yëgee wala leneen hmm. mais ci yor bu rafet bi nit tekki jëriñ boppam jëriñ askanam jëriñ sax plus ki nga xam ne moo ko yar que ki ko jur hmm. donc feerte boobu te ba tey sax am na fi maanaam ci ñi nga xam ne dañoo yaa dënd ci ñi nga xam ne am nañu de ci ñi nga xamante ni ñu jur la ñàkk la jur boo leen dénkee dañuy jàpp ne kii bakken la rek yar ana daara safia ana pouponnière mhm. ana ñi nga xamante ni xamuñu sax fu nit juddoo mhm. te dañuy yar ba mu dëgër ñu jébbal àdduna donc am na ñoo xamante ni yar nañu nit ba mu tekki mu nekk fierté ci ñoom mhm. te juruñu ko mais beneen aspect bi tamit am na importance trop mais déception bi man duma ko jël jox ko ki nga xam ne day yar mooy ki nga xam ne dafa yar nit ba mu màgg ñu ne dafa am déception ci moom damay déplacer déception bi yóbbu ko parfois ci parents yi ak xale bi ñu yar papa. Euh, da ngeen sànq papa dañu joxe adage doomu jàmbur du doom papa expliquer ki ko wax mais yéen démb dafa am histoire yu bëri yoo leen doon raconté mu marqué ñu te da ngeen ko doon raconté pour xamal nit lu bon lu mu def nit day dellu ci ko am kumba amul ndey kumba am na ndey histoire yu bëri mag yi dañ ko daan indi pour mën a di delloo si waat mag yi nga xamante ni dañ leen a jox doomu jàmbur yi pour ñu yar ko parce que yar mooy defar nit yar mooy tax nit màgg nekk nit ku baax mhm. wala nit màgg rancunier boo poussé kumba am na ndey kumba amul ndey ma jëlaat leneen li nga xamante ni ñuy wax ne munoo bëgg ginaar bañuy nenam soo fi gisoo yar enfant d'autrui ci góor ñi sax c'est très rare parfois da ngay gis ay góor yu am problème psychique di di di di sàkku seen seen doomu jiitle wala violence bi dundon dundoon démb di ko dóoraat seen doomu jiitle ñooñu bàyyu jiitle yi nga koy gis parce que même ci doxaan bi di nga gis nga am doom sa sa borom kër bu lay bala ngay ngay sëy bu lay labat day ñëw di indil cadeau bi xale mel ni jur parce que je fais la part des choses mm-hmm. généralement déception yi ñuy am ci jigéen yi lay gën a doon mooy ay yaayu jiitleeg ay jigéen yi yar parce que góor yi yar même ci labat bi da ngay gis ne bu ñu ci labat bi dafa am nu ñuy téye sa doom ba sax si ngay si ngay japp confiance am sañ-sañu sëy ak wa waaw non j'arrive j'arrive j'arrive au moins sax y a une négociation post mariage moy mhm. amna négociation avant mariage té ñu ci bëri problème yi ngay lire soko déggé déggee sama bàyyi jiitle da ngay xamné li c'est plutôt des problèmes psychiques que ay problème wu yoo xam ne mën la jox yenen exemple suma duggé ci déception Safia bëri na fi ci société bi ay doomu aadama yoo xam ne amatuñu confiance en soi tem bii moo tax ndax jàmbur moo leen yar buñ ne confiance en soi mooy jël sa propre njaboot teg ci kaw njabootu jàmbur kooku fu mu dugg ci àdduna yaakaar ne ñëpp ko gën parce que fa mu yaroo ëtt bi mu yaroo wa tax ñu dem plus loin nga yar góor waxuma la góor bi nga xam ne day yaru ci yaayam gis yaayam di son mu koy dëbbal di ko paaseel wala dara say doomi yi jigéen toog say doomi yu góor toog nga jël doom bu góoru jàmbur di yóbbu marché di ko dëbbuloo di ko toggloo ngir mu mën a doon jigéen ëllëg wala bu bu ëllëgee ñu koy mën a ñu koy ñu koy ñu koy mën a xas kon am na yenn euh, parents yi nga xamante ni tey am na nuy doomu jàmbur yi mel am nañ ci responsabilité bu bëri et négativement su ma ne négativement efféminé laa la jël am na ñoo xam ne tey tàggoon nañu seen sago mm. ñu ngi ci mbedd bi di dox ndeyu jiitle moo leen ko def lan lañu woyé woowee ndeyu diitle ki nga xamanteni sa pap dako jël tak ko ci kër gi amna ci nak ño xamanteni sax dañuy wujjeeg xale bi te yaayam newul ci biir kër ga dañuy wujjeeg xale bi te yaayam newul ci biir kër ga gaañoo sax dañ koy fay wa moy moy problème yamu amone ak yaayu xale bi lay jema fajj ci xale bi bari na aujourd'hui de notre génération ay xale yu te sax ay mak yu mët muskàllaf yu fàttewul seen démb d'accord sa fi doguma la mais Sénégal dañu tam suñu suñu la mayee par exemple xale sama dom par exemple ma jël mm-hmm. may ko Sophie mm-hmm. euh, dama nan may ka may n'a ko ay yaxam la soxla mm-hmm. c'est-à-dire ils ne reviennent jamais vers cette personne di xol sen dom naka la nekkee ci kër gi parce que dañ koy jappé ben reconnaissance ben affaire c'est-à-dire nit ki may naa ko may ko parce que loolu dañ ko fi gis tout le temps ah. est-ce que responsabilité amna fofu de la part des parents c'est-à-dire mën nga baña a yar sa dom parce que tu n'as pas les moyens mm. wala parce que t'es pas à yaa ngi dem mm. jàngale ji mënoo di gàddu xale bi ko yóbbu tout le temps mm. yaa ngi ko bàyyi ak sa doom bàjjan wala sa leneen ak leneen mais de temps en temps nga dem seeti ko wàññiwul dara ci li nga xam ne mooy cër bi nga jox ki nga xam ne moom nga jox sa doom parce que dañuy gis ñu bëri te seen doom dañuy dem ba màgg duñu leen xam mm-hmm. te nit ku nekk am nga droit xam sa identité effectivement xam ne kii moo la jur kii mooy sa papa kii mooy sa parce que xale yi dañ leen di bàyyi ñu màggee noonu ba ëllëg si biir dara am effectivement héritage dina jot leneen ak leneen dina jot problème yi bu si bu ñëwee ci ngay soo a xam ne ah Père Mbaye Ngoné Fall mi juruma naka te moom daf maa yar donc wala daf maa adopté parce que noonu lañ koy woowee alors que xamaluñ la ko woon avant choc boobu rek mën na sonal nit ki. Mm-hmm. donc man balaa may daaneel delloo la kàddu bi dama naan saa dépend ci ndénkaan bi. Mm-hmm. gis nga mag yi généralement sax bu ñu daan wax loolu. Mm-hmm. rafetal la. ay yaxam laa la laaj daf may jàpp ne prospère bu nekkee. ku ma bokkal ndey ak baay. ma jur sama doom day am prospère am jabaram. mënul am doom ma jël sama doom man mii njaboot laaj sama borom kër ne ko dénk naa ko Prospère ba pare ne ko ay yaxam laa la laaj boobu maa ngi bëgg mettre Prospère à l'aise ngir xëy na li mu mënul am njaboot jox ko sama doom mu yar c'est-à-dire yooyu daan na am mais ginnaaw loolu tey du suñu génération bi nga xamante ni après les on ont grandi xam ne tey dina am ay sëkkel yuy nekk ci nit dina am ay comportement yu nekk ci nit te ci njëlbeen bi la ci yareen bi la ak ci ki ngay tombeel la bu boobaa doom boo ko joxee te takkaay ma wax la nag suñu génération papa bëri na ñoo xam ne dañ naan sama doom nu mu mënti mel ma uuf. Mhm. parce que sëkkal ak conséquences yi ñu gis moo tax. dañ ne bu may ndox sax ma jox sama njaboot parce que yéen sutura bu bëri amoon na am na ci ñoo xamante ni sax dañuy remercier ñi leen yar parce que dañuy wax ne ci tàngaay bi. kële mhm. dalay yar ak tàngat. parce que noonu la ñuy la ñuy jubbantee loolu la ñu jàpp ne mooy jubbante mais pour ma mën a continuer si sama développement am na si ñoo xamante ni tey papa amuñu dara ci àdduna seen àdduna yàqu na ci de par leur comportement ci parce seen am-am te ci seen biir ëtt lañ koy defee ëtt yaay baa ëtt baay parce que lan dañu ñañu ko ñañu fa fekki jàppeewuñu leen comme doom noonu ngay gisee ñi nga xamante ni Sophie mhm. malgré nag parce que man dama koy wax nit ñi damay wax jaar-jaaru àdduna jom moo koy fay mhm. ci biir ñaar yi moo am dañu lay yar jàppewuñu la comme doom nga jaar fa sànku mhm. muy double perte ñu ñu yar la jàppewuñu la ka am comme doom nga jaar fa am jom bëri na tey ci réew mi ay nit yu am jom lool mm-hmm. du ci biir kër gi lañu ñu fippoo dañ koo muñ mm-hmm. muñ dóor fippu bi si après muñ saaga mm-hmm. muñ coow bu am ñu ni la yow la muñ xiif muñ mar muñ beddi ngir ñu mën ko transformer ëllëg en jom ba tax ne démb euh, ñi doon ñi nga xamante ni dañ doon xas démb mm. peut-être ñu nangu tey et am na si doom yoo xamante ni doom yoo xamante ni rancune boobu papa. pour en revenir à l'histoire de Coach Barma mom lañuy magalé moy pour problème yi nga fi dégg ray sen yaayu jitlé wala ray sen baayu jitlé parce que ñom japp nañ né perte nañu ci aduna ba paré donc man pour man mais effectivement effectivement man pour man so bëggé nit war nga ko bëggale ak doomam mhm. yar nga yaatal sa dënn té xamné comme on est dans une société sénégalaise mën nga tomber ba tombe ci ki nga xamanteni euh ki la té xalé croissance day toll foo xam ne ci lay xam àdduna ci lay gëm boppam ci lay defaru mbaamu yàqu bàyyi ba ñu ko war a wax sax pour pourtant kilifa bi day mët kilifa parfois ci këram mais day dem liggéeyi balaa moo wàcc fekk na ne la ngay dund ca kër ga dund nga ko ci ba pare mhm. soo waree wax ak sa yaay bu fekkee bàyyi jiitle la sa yaay du la déglu xale du nettali bu fekkee ne yaay jiitle la même chose nga màggaale ak rancune màggaale ak nakar yo xam moy li ngeen gis aujourd'hui dans la société ay nit yu nangulantewul ay nit yo xamanteni lo loo leen wax ñu mer ay nit yo xamanteni lo loo leen wax ñu joy parce que ils ont trop pris sur mm-hmm. sur eux donc éducation bi effectivement amna fierté mais il y a aussi beaucoup de déception du côté des enfants d'accord maman Oumou wa merci beaucoup sofia tem bi ngeen indi tey tabaarakalla kala machallah dafa am solo muy éducation éduquer l'enfant d'autrui entre fierté et déception nu may duggee si bi mooy damay indi démb nu ñu daan kan lan daan jox mu yaral la jur yi dañ daan toog gis seen nawle seen mbokk léeg-léeg mun na doon sax ku nu bokkulu dara jukko ya mu yor ñu gis ña mu yor ña mu yar fi ni jaar mu jël doomam ñëw ni lay jox la te dañ la koy teel a jox ndax it doo jël sa doom. yàq ba pare soo ba mu yàqu. ngay mm-hmm. dem di wuti ndimbal. Mm-hmm. ngay dem di wuti ndimbal day xaw a doy doy doy waar. Mm-hmm. naka ngay yare xale. naka ngay yaree xale dafa am solo. yarkat dëgg yi dañuy dañuy dañuy uh, saytu jikko xale. di nga gis xale bu dëng dëng dëng xale bu dëgër bopp dëgër bopp. dana am benn nit bu muy rus nit kooku moo naan ko bàyyil mu bàyyi nit kooku moo naan ko toogal mu toog ndax kooku jàng na caractère xale bi xool na jikko xale bi ba war a mun a xam fu muy jaar xale bi xale bi soo koy yar dafa am fooy jaar ndax ñun ñëpp jaar nañu daara suñu dëkkul woon si daara jaar nañu daara suñu sëriñ yi dañu daan jàngal ku nekk ak pédagogie bi ñu daan utiliser ku nekk ak pédagogie bu ñu lay yaree même ñun suñu kër beneen kër boo dem c'est toujours comme ça parent yi dañ daan am seetlu xool ni nii yaree xale rawatina nag doomu jàmbur bi ñu la dénk mag ñi dañ daan fexe ba lu baax ñu jox doomu jàmbur bi bugguñu mu jooy bugguñu mu rafle bugguñu mu xiif ndax dénkaane la ndax ëllëg bugguñu rus si kanamu ki leen dénk dañu daan góorgóorlu si yaru xale yi di ko def di ko def di ko def ba tabaarkalla macha allah xale bi màgg du bugg sax ñibbi kay woy juram day am léeg leen nag di nga gis koo xamante ni dina ñëw yar mu yar yar bu metti nga ne dafa soxor dafa nangam dafa sàngam. Mhm. benn anecdote rek am na xale bu ñu yaroo ndowoon foofu fa ñu dëkk. turandoo ko yar yar bi metti noonu na ñun ñëpp xamoon nañu paa bi yaram dafa metti mhm. mu yar yar yar yar xale bi xëy bés ba xaw dëgër rek dem ñibbi kër parent am yi tay bi mu dellu see nee na réccu na lu mu demee. Mm-hmm. parce que paa bi tabaar fakàlla macha allah ñi muy yar yëpp tabaar fakàlla macha allah. jàng nañu tabaar fakàlla macha allah am nañu réussite tabaar fakàlla macha allah mm-hmm. moom mu toog reconnaître loolu. Mm-hmm. moo tax yar bu ne façon yar bu ne am na. nu ñuy yaree nag tey. waajur yi dañuy jël seen doom joxe bopp rocc min

mais tey loolu amatul kenn du nangu ñu yàq sa doom si biir kër gi ngeen dëkk rek sax doo nangu kii laal sa doom fu nu jëm il faut que ñu taxaw parce que yar xale tey jii ñooy doon mag yi ëllëg te suñu deful si ñoom yar defuñu si ñoom diine ku mu mënti doonaa ah. mooy doom bi nga jur doom biñ la dénk surtout kañu la dénk parce que nit su amee yaakaar si yow ñëw indi la njabootam ni la yaral ma kat war ngaa am lu lu positif loo ci war a def ñu ñëw si mbirum ay doomu doomu ba bàyyi jiitle ak ndeyu jiitle dama yaakaar ni ka nga ka nga jurul ka nga ngeen baal ma si terme bi li olof di wax ka nga nàccul sa kawam mm-hmm. kooku nga war a gën a góorgóorlu yarka ndax gis nañ ko fi de ay kilifa yu fi nekk tey seen bàyyi jiitle seen jabari seen eh, ndey jiitle ñoom la ñu gën a fonk seen i wéyjur mhm. sa wujj yaay yar la nga yor yar boo xamante ne tabaarkalla macha allah yow sa kër yaay soo fa demee yendu doo fa añ dangay ngay yàkkamti dellu si si kër ga mhm. ndax téye bi la téye jikko ji ni def si yow kon nag yar daal mooy yar metti na di nga gis lu neex di gis lu naqari waaye muñ xale danga war a dëkkal si bopp muñ am jomm am jomm jomm doomu jàmbur bi ngay yar boo yar pour dóor yaral ni ko amal jommal def nangam jommal def sàngam yow mi kay yar it nga am jikko yooyu mhm. ndax yaay roy waayam mhm. d'accord d'accord maman Oumou naa ñëwaat ci yow merci allez Aziz franchement thème bi am na solo lool mais boo ko doon natt ah ci fi mu gën a nekk mooy déception bi moo ci ëpp fierte bi. Mm-hmm. waaw ci génération bi nekk xam nga dañoo tàmm naan ay lawoon. wala mu njëkk ba wala mag yeeg yooyu. nekkatuñu ci monde boobu nekkatuñu ci vie boobu. Mm-hmm. parce que tey jii li xale mu naan musaan ruus wala boo musaan dégg dëj doo génn boo musaan. gis lu la tiital di nga toog une semaine yoo xamante ne dina nekk ci yow loolu moo amatul ci monde bi ñu nekk nii parce que tey jii boo njëkkee ñëw sax ci kër ga ki nga gis comme nga bokk ak nit ki ndey ak bàyyi doomam bu déconné nga corriger ko mun nañ la plainte yow mhm. comme si que keneen ñëw ca kër ga parce que déception moo ci ëpp ndax moom bu ñëwee ci kër ga ñenn ci biir kër gi ñoo leen njëkk a naan kii li muy def doomam du ko du la ko def léegi bu ko defee day am benn fugg bu mu lay jox yow looloo lay poussé ci sa ñàkk jom ak ci sa mbon ak sa maanaam yow réussite moom doo ko mës a am sa life mm-hmm. ndax tey jii bu ñuy yar xale yi yar xale fu mu toll nii moo gën a metti ci àddina ci biir bi ñu nekk mm-hmm. ndax li gën a garaaw mooy ci monde buñ toll ñun ci ak société bi ñu nekk ñun suñuy xale lépp lañ jëlee dënn pour ñoom lépp luy mag def ak dañ koy def mm-hmm. ndax suñuy xale tey da ngay gis xale bu am 16 ans li muy njëkk a xam mooy make up crayon wala bu mhm. fekkee ci jigéen make up crayon pose ongle def yooyu yow kooku moom yóbbu na boppam 18 ans déjà mhm. te yow nga gis sa doom teg cheveux naturel rek yow war waroo ko sax nangu mhm. parce que xale daa am 16 règles de base yoo xamante ni loolu il faut ñu jàngal ko xale yow mi koy yar yaa ko war a gën a mun a dëgër bopp foofu moom bu demee ba am ngoru dëgër bopp yow won ko ni maa la gën a dëgër bopp fuuf ci geste xale yu noobu yu muy deful ay geste yu bien yi muy def nga ko ci encouragé mm-hmm. ci loo xamante ni def na ko loo xamante ni waru koo def nga corrigé ko ci saa si immédiatement mm-hmm. mais tey jii dañ lay jox xale ba pare tamit monde bi moo dépassé jox xale quoi bu ñu dégagé ay responsabilité ndax nga jur sa doom ni doom neexee ki toog amu ko mën na am kooku amul doom nga jox ko mais doom lañ dul joxe ñu fu ñuy joxee doom naan yar ci doom bu ñuy joxee di ko yar ma loolu loolu boo doon naan ndox wala ngeen di baxal suuf yàlla mu ngi fépp sama yàlla mooy sa yàlla mooy yàlla ñëpp te moo may jox moo lay jox mooy jox ñëpp mm-hmm. kon tey jii li gën a man dama ko ñaawlu moom man mën naa muñ lépp sama laaj ba mu des nga jur sa doom ba pare ci yi sax da ngay gis yaay yoo xamante ne amuñu seen jotu doom ba amuñu sax seen jotu doom bala ba am seen jotu doomu jàmbur loolu daa mën a nekk mënoo yar sa doom nga bëgg a yar doomu jàmbur mm-hmm. yow nga jur sa doom amoon leen looy def yeewul fajar ngay xëy di liggéey wala nga yeewu fajar di dox ci mbedd bi da gis ay taalibe yu am deux ans trois ans wala cinq ans nekk bi di dox doon lu ndaw di dox ci territoire bi nii yow ngay laajte ana waajuram ah ngay laajte ana waajuram dans ta tête c'est vrai seen waajur yi ba pare tamit xale bi ngay yar nga am ci loo xamante ni neex na la ci mooy xa parce que tey jii foot bi ni ngi nekkee ci yaay yi noonu lay nekkee ci doom yi tamit mhm. ndax tey ji mën nga am yaay joo xamante ni ni muy xoolee xale boobu du ko xoolee sax doomam ji mu sukk jur ndax kooku peut-être yërmande ak bu xalaatee yaayu xale bi kat moom de ndeysaan ba muy dund daf ko bëggoon wala papay xale bi daf ko buggoon moom ku loolu lay xool ci moom mm-hmm. wante bu fekkee mère yu pànk yi nga xamante ni dañu doon wujjeeg xale bi dañu doon wujjeeg seen yaay yi mm-hmm. comme soo fi wax mm-hmm. xale boobu dinañ ko mbugal mbugal koo xamante ni ba pare di ko yàq nag ni koy yàqee mooy fépp foo xamante ne xale bi waroon na fa am grandeur déception lañ koy def wala ñu defal ko loo xamante ni fu ñu ko war a fekk fu ñu ko war a nawee dañ koy réduite ba mu ndaw ba pare sànq da nga point bu am solo mooy xale yu góor yi ñuy jël yu ndaw yoo xamante ne ay doomu jiite la ñuy doon nga leen di ni ay marché ak waañ ak dëbb ba bu ñu waxee nga tiit bëri na ci génération tey. dañuy efféminé. trop même bu ñu waxee moom da ngay boo déggante ak ñoom téléphone nga ni soxna si yow sa baat bi neex na de.

que damay wax né mission yi yalla dénk doomu adama ñaar yi ñaar moo ñaar la japp né ñoo ci gëna metti moy ki yalla dénk wërseuk ak ki yalla dénk njabot go wara yar muy bo jur wala bo jurul pour man ce sont les deux missions les plus délicates parce que yooyu bokk na ci ñaari mission yi nga xam ne yàlla ngay rendre compte directement xam nga bu dee les cinq piliers de l'islam kooku yàgg yàlla la yërmandeem dépassé na nga am ay rëq-rëq mu mu jéggal la mais alal jum la jox ak doom joo yar pour man ñaari mission la yoo xam ne mission gënu ko délicate ndax dama am sama sama papa daf ma wax lu lu lu am solo ne ma xanaa xamoon ne bu fekkee ne alal la yàlla ku ne xam na li la doy su la joxee lu ëpp la doy dafa bëgg nga séddaande doom it noonu ku yàlla joxoon benn doom bu góor benn doom bu jigéen doo mën a waat ne aw ma doom waaye bu la si joxee yu bari ba toftal ci ñoo jurul bëgg nga yar a tax ay mission la ma wax ne quand même euh, wax dégg naa sànq ñu ne doomu jiit la du doom euh, depuis kataaw Kocc Barma may wax ne quand même euh, il faut qu'on reconnaisse une chose entre euh, temps ou coach et instant bi beaucoup mentalité évolué na parce que à la place de dom, la dom, damay dégg ñu bëri slogan la société mm-hmm. euh, xamul kuy dégg ko mu sax société c'est extrêmement important parce que dañu dem ba gis Euh, effectivement lu bëri mën na xew ci diggante wayjur ak doom sànq Aziz da wax ne jamono bi ñu nekk nii sax kenn dénkaanatul doom c'est vrai c'est pas l'idéal mais dafa am yoo xam ne Aziz cas de force majeure la yàlla euh, euh, boole la jigéen nga bëgg ko ñu may la ko fekk sëy na ba tas ba am ñetti doom yàlla bu muy doomi jigéen nag nga xam ne seen ndey lañ war a nekkal da nga ci waslu ak yalla natu jigen mu bëgg goor go ami njabot mom mu ñew dugg rof wara uuf doomi kërëm c'est des cas de force majeure c'est-à-dire comme nga ci labat ba ya leen bis mais suba ba ba labat ba nga am ko hmm. waaw foofu hmm. foofu laay daanelee. Hmm? foofu may ma ñëw foofu laay daanelee lenn aussi mën naa koo seedeel jigéenu Sénégal. Hmm. gis nga buñ ku ci yàlla dénk ay bant ba am ku lay labat li ngay njëkk def mooy mënoo maa bëgg bañ samay doom. dëgg la loolu bu boo ko lijjantiwul ca ndoxaan ma. boo ci duggantewul excusez-moi ci labat ba. bu ëllëgee lu dal say doom yaa leen ko teg. mais yow leer na ne xale yu góoru Sénégal aussi nañuy labatee du noonu la téye soxna. oui mais du ñëpp. fa laa jëm si nii bien évidemment.

di ci di ci am plaisir effectivement ëllëg mu muur ko maye ko. Mhm. plaisir bu mu waroon am ci doom rek mu am ko ci gis nañ ko fi. am na doom am na doomi càmbiñ am na doomi doomi ji sa doomi jigéen am na sa sa doomi jëkkër sa doomi jabar n'est-ce pas toppee parce que loolu suñ société la bokk c'est culturel muur la ngay sëy ñu jël lu ndaw boole la ak moom mu ànd ak yow loolu yëpp day nekk ci contexte boo xam ne nii culturellement lu ñu accepté la suñu société gis nañ fi jërim baayoo yooyu yëpp dafa am suñu société yoo xam ne ni mooy permettre yow effectivement wala en tout cas mooy mooy créer les conditions pour nga yar koo xam ne nii yow euh, soqeekul ci yow may wax nag ne foofu la defi bi nekk mooy li ma doon wax sànq pour man kooku mu ëpp défi tey ma def ci yow loo xam ne ku ko gis xam ne kii kat ay la yëwén juru ko waaye wàccu naa ak moom waaw loolu nag dafa am lu koy maye si suñu société bii mooy tolluwaay ci yàlla li tax ma ne tolluwaay ci yàlla mooy Aziz yàlla mën na laa boole gone goo xam ne boo koy métital ma sàmb du gis ma démb du gis mais bu kon borom bët baa ngi lay gis yow da ngay dégg mu nekk aussi une situation extrêmement euh, sensible ndax xale du fàtte gis nga xale loo ko inculqué moo xam ci métit moo xam ci bànneex dafay màggaale ak moom motax euh que muy xalé buñ la denk wala muy ku ko jur wala sax ko doon wujjeeg ndeyam parce que sa fi wax na ko sànq loolu souvent jigen ñi la ko yalla nattoo pour effectivement ñu bëna am ñu am mëna am ben grandeur bi mais gis na né quand même avec l'évolution de la société c'est des choses qui ont qui qui qui ont tendance à disparaître parce que comme ni mo wax sànq ñi nga xalé kat euh, porte la da ngay da ngay fóot rek ba mu normal xayu bat fóot weer kenn xamul kuy weri te loolu nekk slogan boo xam ne day ñëw petit à petit remplacer liñ naan doomu jiit la du doom wala doomu jàmbur du doom parce que mën nañu mën nañu inverser la tendance exactement a quoi faisant mooy ki nga xam ne yàlla dig na dig euh, boole na leen nga yilif ko nga def te yàlla tax parce que def te yàlla tax mooy waral effectivement nit dugg ci kër comme wax nañ ko sànq ku waxul sant duñu xam ku sante nangam ak ku santul nangam. Mhm. pour man fofu la defi bi nek mhm. te koku len rek mo la ko meuna may moy di bayyi sa xel ak fo meuna tollu euh comment dirais ne ne ngi lay gis. Mhm. parce que effectivement momine alalu yalla la. boko defé base muy ki nga jur ak ki nga jur différence bi du am. ya xam da nga doon wujjeeg ndayam ya xam da nga méré bayam ya xam ak quel que soit le contexte. génne ko ci moom. parce que ki la confiance xam nga mhm. c'est un pacte de confiance colossal. Quel la kenn ko mesurer. Aziz yaa ma doy sama dooma ngay dem yàlla xam kañ c'est un pacte de confiance inestimable. ñu war a bàyyi xel ak foo que a toll nag que ne borom benn bët bii moom. mi ngi lay gis ngeen wéet. ba sa xel dem ci yegg ci kawam yàlla ngi lay gis. Prosper fi nga taxaw noonu foo mu am importance dafa am benn présidente association bu ma envoyé message ne ma par exemple ñoom kaay ñi am ci mois bi forcément dinañ am benn cas similaire c'est-à-dire ñi nga xamné seni seen i do seen i seen i bàyyi jiitle yegg sen kaw wala ñu leen di maltraité di leen door ba dañuy daw bu ñu dootu ñu xamati fu ñu nekk dañu Sénégal chaque jour nga gis benn fi ñu bind ko elle a disparu dañ koy sét dañ koy sét mais au fond à chaque fois les gens se demandent qui dañ né réer na une semaine elle est revenue te ñëwaatuñu ci presse bi wala demaatuñu fenn wax né ah kii de fii la nekkoon mm. la plupart il y a des histoires derrière soit papa yi jiitleem moo ko doon maltraité ba mu daw su ñibbisee xam nga doo nettali loolu te la plupart seeni jabar dañ leen di bëgg ba dañ leen di nëbbal yenn affaires yi am na ay yaay yoo xam ne ñi ngi ci biir kër amuñu papa amuñu yaay seen jëkkër jooju rek la ñu xam moo leen di jox ñu lekk moo leen jox laan moo leen solal yor seeni doom la question qu'elle se pose mooy kii tey bu ma fippoo fan laa jëm bu ma fippoo dem police wala ma dem gendarmerie wala moo ko sax si koñ bi nit ñi di ko xoolee fan la jëm day xamné ki mi ngi yegg sama kaw dom papa ji day xamné jabaram xamné ne ni ma ngi nek ci mhm. kaw doomam mais duñu wax xalé yi nag bu ba atteindre ben âge am ben maturité dañuy daw génn seen kër té duñ ko ñemee netali fenn parce que ñomi tamit ñi ngi jéma protéger seen yaay donc yu mel non dañ koy gis tout le temps tout le temps biir Sénégal té bëri na fi nak buñu ñu né ne wu fi wala ay faits divers la mais de fait, bëri xalé yo xamné dañuy mag sax ak mécontentement da ngay gis ko xam dañ dañu dafa dafa soode diw dafa def li diw xamoo. Mhm. li ci ginnaw lolu mo am Sénégal 88 628 89 90 88 628 28 28 ñu nekk extérieur 00 221 33 841 20 69. lu bàyyi la nga dalel ma dellu ma gëstuwaat ci papa. nangu naa li nga waxa ah, Safia. Mhm. effectivement c'est un problème dans notre société. Mhm. lu am la lu wér la. Euh, père junj ko sank parce que japp na né koku sax du bàyyi hein, parce que comportement bayima c'est vrai mais aussi il y a une chose à préciser entre euh, euh, Yarbi, Métitelbi, bi c'est pas c'est vrai c'est pas une exclusivité masculine c'est pas aussi une exclusivité féminine parce que barina aussi aussi a jur wala a sa yaay wala a sa papa

gis nañ sax ñuy yegg ci ba ko di ko def seen propre fille ñoo xam ne ni sax duñ ay du doomu jàmbur sax sa sa doomi bopp donc vraiment yi ma àdduna yi nga xam ne man comprendre guma ko sama àdduna boobu ci la bokk très sincèrement. Safia mën naa dugal foofu tuuti. Acaya Boy téléphone bi boo ñu ci mën a jàppale. comme ça euh. ñu démarrer jël téléspectateurs yi. gis nga loolu nga wax ni moom la la yónnee message ni la mm-hmm. am na xale yoo xam te seen wayjur yu kii seen bàyyi jitle dañ leen di tëddee ñun ay jullit lañu lislaam ko njëkk a wax ni jigéen bu sëy ba tas sooy amaat beneen borom kër doom yi ñu laa topp déedéet kay ah, kañ lislaam ko wax de te Prospère nee na fii jigéenu Sénégal ku ci takk daal da ngay bëgg a yóbbaale sa bopp lislaam wax dañu ne lislaam jigéen ju say ba tas mm. sooy dem di am beneen jëkkër sa borom sa pap doom moo war a téye xale yi source de problème la nga baal ma nga baal ma aja bàyyi ma ma ñëw nañ ko bàyyi mu yegale bàyyi rek ma ma ñëw non nañ ko bàyyi mu daaneel bàyyi ma ñëw ah, dañu naan la sa xale yi en général même su dee li nga expliqué su dee seen papa dafa dee yow ku jigéen ki avant say frère sa yaay ñoo daan jël xale yi téye leen ndax xel dafa dafa dafa dafa ñaw xel dafa ñaw ndax loolu l'islam moo ko njëkk a wax te effectivement loolu la xas nit ku sëy ba tas ku góor ki jur doom yi moo war a téye doom yi su dee moom day sëyi feneen moom ay mbokkam ñoo war a jël xale yi téye leen ndax lii lañ si doon bañ ñu dem àgg seen bàyyi jible li àgg seen kaw looloo tax l'islam ma wax ko su dee loolu du dëgg na am oustaz bu dugg weddi ma mais loolu am na. waaw waaw non soxna si man. waaw lenn rek ma jaaxal ci wax ji ah. waxuma ne bon xëy na sama xam-xam ci lislaam mm-hmm. tolluwul foofu. mais damay logiquement par rapport ak xel mi ma yàlla may may xalaat. Mm-hmm. parce que jigéen sëy na ak nit am ak moom ñetti bant ñeenti bant ñu jigéen. que ça soit muy l'islam mm-hmm. que ça soit muy sunu dans la vie tout court. jigéen mooy yar jigéen. donc ah. forcément seen yaay la ñuy àndal. mais même suma ma suivre sa logique yow ba ñoom ñu war a dem seen baay wala seen mbokki baay d'abord wax ko ko sànq. Mm-hmm. mën na fekk de papaam gaañu na. mais en tout état de cause ñoo bokk dénominateur commun mooy ña nga ca kër goo xam ne calendrier juru leen. dëgg la ça c'est le dénominateur mm-hmm. commun. Mm-hmm. donte sax da nga wax ne l'islam loolu la wax. et encore que je mets un grand point d'interrogation. Mhm. weddiwuma ko. Mhm. Mhm. mais dama koy gëstu. d'accord on va on va on va réfléchir un peu par rapport ce li maman wax. parce que ki nga xam ne moom mooy doom. ñu jël ko ñu ne bu ko yaay yóbbu kër fi muy seeyee nañ ko jël jox ko baayam bi ko jur. je pense que bu demee tantam. waaw d'accord foofu c'est le même contexte non non non je pense que traitement bi muy am en tant que papa xam nga par exemple Prospère bu àndee ay doomam te peut-être soxnaam juru ko Prospère loi yi muy tëral ci këram par force dañ ciy tegu parce que c'est le chef de famille mm-hmm. bokkul ak jigéen boo xam ne day dem ñu yor ko yoraale ay doomam mm-hmm. est-ce que est-ce que est-ce que yaa ngi may suivre mm-hmm. ki nga xam ne day dem ñu yor ko yoraale ay doomam c'est pas tout le temps que lay mën a exiger yenn yi yenn saa yi ñu dóor sa doom wala ñu def ko lu metti nga muñ parce que da nga naan ah kii nag moo ma yoral samay doom moo leen di defal li ma leen defal li ma leen pourtant il n'était pas obligé de le faire alors que papa ji moom fi muy taxawee ce sont ses enfants Moi leen di yor moo leen moi solal moo leen di jox ni lekk moo leen jox ni ça sama sama jabar soit day bëgg samay doom wala mu génn kër c'est pas la même chose ak la dame bi nekk kër gale nous ñu bëgg ñu bañ normalement des téye des muñ ci ci lu ñu xam culturellement au Sénégal xam nga doo tas gisagoo ki ku tas ne damay tas parce que ah c'est très rare. Sophia ñi nga xam ne dañuy fippu. Eh, merci beaucoup Aziz. waaw c'est un cas mais loolu c'est un cas. merci beaucoup dama ne mais non dama ne ni réfléchir rek par rapport ak ñi nga xam ne la yaay mom la yaay mom moom fa laa jëm si nii. voilà tant que may tourner ci papa. ñaata nga gis ay doom. daw yoy ñi wax sax d'ailleurs. ci xalé yoy la uppé. sa papa tak soxna. indi ci kër fekk fa seen ndey mu tollu ci jabaram fo xamné xale yi saa yi ñu wàccee seen papa seen kaw lay lay lay lay lay dóor ba tëdd leen ndax seen tante nee na nangam. waaw mais loolu moo gën a bëri. déedéet mais loolu prospère bokk man xam nga ban contexte laay wax. le fait que bàyyi jitte bi di tëddee ay doomu jabaram. non non loolu laay wax man côté boobu laay wax man moo tax ñu ne. waaw c'est vrai maanaam en fait ce que ce que tu voulais dire c'est que di en fait diine. d'accord fi soo daan lee mat ñëw ci père su moom laa bëggoon ñëw wëkkëf. mais soo soo soo continuer ayca soo continuer après ma ñëw ci papa. maanaam diine day préparer nit ñi ci ci ci lu bëri. ci les conséquences mais loo xam ne ci conséquence dara. xam nga jullit am na farata jàpp am na farata. Mhm. boo ko xamul mën nga jàpp julli maanaam dafa am yoo xam ne obligation ci islam. am yoo xam ne mhm. diine da la koy wax ndax dafay jàpp ne moo ci gën. mais ci société bi ñu ne jox nañ la exemple bu pertinent di nga gis jigéen joo xam ne dafa dem ba mët kilifa jur ay yenn doom yoo xamante ni ay jigéen lañu mënu leen bàyyi ginnaaw kilifa jóge fele takk ko ne ko ñewul ma uuf la ak sa njaboot mm. di islam dàq ko manam effectivement day préparer doomu adama ne la yow so amee bo juré sa dom. nga am koo ko jox bu fekke da ngay sey ji et c'est généralement ñu jur dom avant je suis d'accord l'islam suis d'accord mais mais mais du lo xamni en fait diine dako dako dako def obligation ma parce que c'est vrai da ngay wax ñu ne le lii ci sey la bokk mhm. li bokul ci sey jigen bu ko dégg meun na jël domam bàyyi ko ci ginnaw mais su euh, ak tout ce qu'on tout ce qu'on voit instant bi ci deuk bi. Mm-hmm. ak li ñuy gis yépp hmm muy xew muy viol yi ci xalé yi ni ñuy comporté wo et tout est-ce que c'est c'est je dirais pas responsable mais est-ce que c'est sûr. ngay dem yóbbaale sa dom ngay dem bàyyi sa dom fenen fan mo gëna maki dañuy wax fan mo gëna woor que suufu xaw ma lan nan yaay nan lañ koy waxatee sax hmm. waaw suufu po fan fan moo gën a wóor et ëpp protection foofu hmm. je veux dire que ne jigéen te kay sëyi sax Sophie diggante ndey ak doom hmm. waxuma la nga nekk mag sax kilifa ñu ngi waaj a tollu âge sëy nga bàyyi leen ci kër xam ne tuutee des mais nga bàyyi doom ju ndaw par exemple ak jigéen ni mu mel ak doomam na mu waree sëy sax du ko sëy ndax day bàyyi xel doomam ju ndaw ja mu bàyyi ci ca feneen ak loxo ku mu ko mënti bàyyi tout à fait papa ñëwal waaw li ñu wax lépp am jigéen coow na ak boroom këram ci biir kër gi ñépp jóg goro yi njëkke yi ñépp taxaw mu daw jël doom ne ko fiteet daal di tekki mbootu ñëw dëjal ko bàjjenam génn teg njëam ba néga ni ba kajoor ak bawal loolu amul tam déet jote na ak boroom këram daw ñëw ne futeet daal di tekki mbootu jël gu ne ga ñëw dëjal bàjjenam wala uufal maamam ndax na jote naag baayam doxe fa dem ba tas doom joj day màgg du xam ndeyam doom joj noonu la desee ci kër baayam doom dina des kër baayam te lii ma leen wax su ngeen ko càmbaree gëstu ko am na góor jooy na jabar dem yóbbaale ak njabootam Mam am ko naqari job dem tribunal ñu ni ko way épanouissement des enfants way la garde des enfants c'est la maman qui doit garder les enfants on va appeler les enfants et les demander il veut s'accompagner avec qui ou le papa ou la maman on ne sait pas mu ñëw juge bi taxaw laaj ñan nga bëgg andal ak xalé fan nañu ëppé jamm ñu ne waaw xale ngi ëppé jamm seen ndey te fekk seen ndey munu ca juróomi dërëm munu leen a yor. na xale yi la ñuy woote la ñuy woowee jàmm noflaay la leneen lay doon. toogul. Mhm. seen ndey du yendal. Mhm. du fanaanal la ko jëlee ca kër baayam xamu leen ko. yow juge bi yow mi taxaw di àtte ki la tax mu jóg rek volontairement daal di pétard daal di bëgg a dem bëgg a dem bëgg a dem pour génn dem yoonam yoo xamuloo ko. yaa ngi àtte loo xam ne fekkee ko te yomal xayam da nga koy àttewaat. nga taxaw daal demander épanouissement des enfants waaw ndaw si ba muy dem am na kër ndeyam am na kër baayam. baay ba génn na àdduna ndey jaa fa nekk am na fa ab appartement boo xam ne lii ni nga koy luwee lii moom moo ko dëkkee moo ko moom ndeyam nee na ko ñëwal nga dëkkee néeg yi ñëw na jël ay doomam daal di indaale waaye du toog du leen yar. du yendal du fanaanal mhm. amul jot mhm. ndax tànk bu mel ne barmalum maabo <laughs> barmalum maabo la dox rek dem wane ginnaaw njaboot ga am litige te moonte bàyyi ba topp na ca ba sonn jooy bëgg récupérer ay doomam ndax xam ne ni ñu ngi jëm ci beneen milieu boo xam ne départ yar bii nu amoon ak seen bàyyi mënuñu ko am feneen ci këru àdduna mhm. ndax doom sa doom yi ni nga ko waxee léegi waaw. sa doom yi bopp. merci waaw kon noonu sax xaw na ko koo rafetal waaye su doom ci biti la ci kajoor na ko waxee neneen. Ah, doom joor nàcc ci kawam doom sa doom yi nàngam. Mhm. nañ koy mën a téye beneen bàyyi bu mu dem. Ah. man de loolu fi mu ne gisatuma ko bàyyi amoon. ñëw na cëpp nu boole ñëpp daal di ñee ay jarbaat nanu ñee ay njëkk jigéen nanu ñee loolu leen di indaale ci kër gi ñee bi seen ngay di sëy si leen indaale ci kër gi ñu boole lépp daal di tëdd daal di jaaxaan ñëpp yéeg daal di toog ufu ci kaw loolu liggéey yemale ko ci dund di ci yar ci yar ba tey am nañ ci ay ministre yu ci nekk yoo xam ne doon naan baay diw moo ma yaroon ña ma yóbbu woon Bambey ca Baye sëriñ Fall. ña ma yóbbu woon Ndar ca nàngam am na ñu ñu yóbbu ñoo xam ne yóbbu ba leen yóbbu pour ñu leen yari dañuy xool jikko xool ko xooloo ba jikkoy maam ma kii maama umu neex ma ma gis ci moom lool téye na aw làmmiñam gàtt na ab tànk maandu na maandu te xam ne kii su ma sañoon jikkoom ji sama doom neex na ma nga yëkkati ko jox ko moonte daan na am de sama yaay doon ko joxe woon jikkoo taxoon te papaam chef de province la woon nekkoon école des fils de chef à Saint-Louis yoroon fa soxna soxna am soosu moom la jël sama yaay Xarjata Fall dem jox ko ko candal li ma ne Fall mooy baayam mhm. ñu naan ko Xarjata na ku dëkk Ndar di nga ko xam moo yar sama yaay Xarjata mhm. mais bi maire bi ñëwaatee amul looy defar ci moom da bëgg a copier ci maire bi xam na fu muy dugg xam na fu muy tegu tànkam xam na lu muy waxee kuy mbokk xam na lu mu war a siq ak yow aw làmmiñam munoo cee fore wenn araf woo xam ne mën naa yëkkati sidditu jëw mbokk ñu ne kii xarjata mi moo ko wax diw muy yaay xarjat na muy yaay seeni bu baasal xam fu muy dëgg tànkam xam lu muy dox xam fu muy teg ba ku nekk daal nga mës a am envie pour yarloo ñii wala sa doom yaroo ci seeni i képp ku ca gauche wala nga dëng yow yaa xam waaye ñoom seen waru dinañ ko def waaye fànn wi ngeen wax yépp am na mais indi leen fànn woowu encore ci jigéen ji nga xam ne dafa toog nekk ci kër ba mujj mu ëlbatiku daal di dem yoonam mhm. yóbbaale ay gune nangu ko mu jarla ko yéeg tribunal ak wàcc te li muy xëccoo mënu ca dara waaw kon lu ko ko muy waaw yor ay doomam rek day defante ay doomam nekk ci wetam ba muy joge ca kon ba ña fa nekk bu fi ba say doom yobul te su demee du yar. ginaar ah fu muy yare da koo tal. Ah, c'est vrai su demee day soli dàllam. di defaru ba rafet commencé may këpp. jaayul commencé dugg di dem <laughs> waaw. commencé na commencé make up. du make up na nga wax dafa baax xam nga hein? xam nga li ñuy wax xam nga ko. bàyyi leen jàmbur 88 bàyyi leen jàmbur tey dafa toog jàpp jàmburam nañ ko bàyyi. ayca nañ jël téléspectateur yi Aziz maa ngi ñëw ci yow maa ngi jégalu. 88 628 89 90 88 628 28 28. ñu daal di jéem làmb ba xam am na ñoo composé nañ pour wax seen i xalaat ñoom tamit ci émission bi papa. waaw ah, nañ ñëw salaamaaleykum. nañ maam Sidi allo allo. allo. soxna si noo def. waaleykum salaam. yaa ngi ci jàmm. allo oui. alo allo. waa soxna si yaa ngi ñuy dégg. allo oui Safia. waaw soxna si est-ce yaa ngi ñuy dégg. maa ngi ci. waaw ma ne est-ce yaa ngi ñuy dégg. Allô Bon, 88 628 89 90 88 628 28 28 nous l'avons qu'un 88 628 89 90 allô Allô Allô Allô Salam alaikum. Wa Salam salam. na ngeen def waay. sant alhamdulilah. alhamdulilah. ah euh, dafa bëggoon a participer ci seen émission bi. acca retour bi daf ñu xaw a sori euh, euh, les gars s'il vous plaît si vous pouvez nous arranger ça parce qu'on n'entend pas très bien ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw li ngeen di waxtaan dafa am solo lool macha allah. waaw dégg dégg ma bu baax nag kàddu gi xëy na li nga bëgg yaa may dégg rek. Bakary voilà bon parce que man yàgg naa leen di suivre quoi. Bakary. ak daal damay déglu sama papa jooju. pare mbay mu ngoone. te wax lu am solo. sama te li muy wax bu ngeen ko dee déglu rek da leen di jàngal. man fi ngeen dugg def ma touché carrément parce que. dëgg la. yar dafa am solo ci doomu aadama. Mhm. Euh, mais li ngeen war a jiital mooy d'abord kan moo war a yar ak naka lañ war a yare parce que yow bu fekkee yow mi yar yaruwu ko doo mën a doo mën a yare d'abord euh, parce que euh, loolu ñuy wax naan jël doom dénkaane léegi jamono fi mu toll loolu kenn defatu ko bu léegi bu doon bu njëkk la daa nga ko mën a def am ci résultat bu ñëpp mais exactement boo ko defee di nga di nga ci di nga ci am lu la naqari. est-ce que yéen a ngi may dégg. Uh-huh. ayca ñu ngi jégalu xam naa ne dañu ñëwaat ci serveur bi parce que ñun fii ci plateau peut-être yéen téléspectateurs yi yéen a ngi dégg mais ñun fii ci plateau bi on entend pas ki nga xam ne moom la ñuy waxal et c'est pas évident de parler avec des gens yoo xam ne déggoo ko papa. ñu bàyyi la nga nga continuer ma ma ma delluwaat ci Aziz moo doon moo la doon laaj. waaw Aziz waaw. ci li ñuy wax ci yàlla. waaw yor na ko benn mbir boo xamante ne. suñ mhm. koy yor mbir bi ñu xew. Mhm. boobu bëriwul na ci ay xarit lool. Mhm. ma ñoom basoka ni. bi mu daanee naa ni yàgg naa kontaan mais kontaan boobu bokk na ci kontaan bi gën a a ma bàyyi. ma ànd na. mais la sax. ci wetam peut-être ñoo bàyyeetul xel wala sa image tollatul foofu ci làmb mais par rapport ak bu njëkk fu ñu mësaan gis mbër yor bi ñu ngi lay gis yor ba nga xëy encadré di jug moom di daanu ak moom ba mu nekk ci mhm. kër nga ñëw soulevé waat ko nga ni ñëpp ak moom bërki démb mhm. émission bi passé mhm. dafa indi yëngu-yëngu bu rëy ci caaroy géej dafa indi coow rëy ndax dafa am ku duggee ca États-Unis daadi di woote daa di ne dama dégg ngay tudd sama nijaay te kooku mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay moom na xaw ma ko ndax ma nga États-Unis mm-hmm. mais yaayam xam naa ko ndax yaayam mooy seen taawub maam mm-hmm. ñu koy wax Mati Diagne Fall mi ngi mbaaw moo jur ña nekk mbaaw mm-hmm. bàjjanu bàyyi ma njoon la mm-hmm. Mati Diagne Fall day xam naa ay magam it ñoom yaan Fall xam naa leen ñoom yaan ñoo bàyyi ma njoon ñoo bokk ndey ak bàyyi waaye soo duggee foofu ba koo ko waxee ne ànd na ab sufi ànd na ak prospère ànd na ak xawma kan ba pare bëgg ànd ak man damaa bañ refuser reculer ko <laughs> ne loolu mënta nekk ndax olof Njaay nee na wenn mm, mënta war ñetti fas mënta war ndaam mhm. war giléem mhm. waru fas bëgg a taxaw di lonku dànq mënta ne mhm. foofa sama xel dafa ñëw ci Baye Mandione Baye Mandione suy bëre ak Balla Gaye Baye Mandione rek laay support Baye Mandione maa ko yóbbu première édition ak Gris Bordeaux. xeex ba metti lool ñu dem làmb de. Mm-hmm. yéen i jaxate moo ko yoroon yàlla na ko suñu borom yërëm. Mm-hmm. ma yóbbu ko contre Moussa Dioum yóbbu ko contre Modou awatin mm-hmm. yóbbu ko am naa ci moom quatorze victoires successives am naa ko ci moom. saa yu coow amee ak moom digganteem ak mbay juuf bul jël baaxul ndax li ñuy gis du ko gis. ndax man yaayam laa amaloon affaire mais moom amuloon affaire am sangu rek mu sangu wala am téyel mu téye yéppam nekk ci sama loxo. d' accord mais papa côté yar bi yar bi. waaw yar bi c' est ce que c' est évident fi ñu toll nii nii ñun société bi lu ñuy dundee nii comme ni ñu ko waxee sànq yaa ngi wax euh, ñi nga xam ne dañ leen di jël di leen di ñuy xëccoo yar jigéen ñi nga xam ne day xëccoo yar te bu ko jëlee après. du def dara du ko mën dara parce que moom lay nekk ci xel ma leneen lay doon kooku sax amaana euh, mu ngi xool lu muy defaat ba sëyaat. dem lijjanti boppam. est-ce que dina toog mën a yar ay doomam comme ni mu ko war a yaree. léegi damay tourner euh, ci Sophie ak Prosper laataa may dellusiwaat si yow. so euh, dama dégg tout à l'heure ngeen di wax yar bi yar bi joxe bi ma bëggoon def un peu la part des choses ak ki nga xam ne dafa joxe am choix boo leen ma permettre mooy ki nga xamante ni euh, dafa dénk daara doomam toll na fenn mu dem jox ko ay nit yi nga xam ne xamuñu ko yar ko boo leen xoolee daara yalwaan généralement di nga gis. ba ci foofu di nga gis ku yaa dënn ak ku yaawul dënn mhm. ki yaa dënn day yalwaan ba yalwaan loo ka mu jur mhm. ndax day jàpp ne boobu mooy mooy voilà mooy ay formation yi ñuy wax ñooñu ñuy jàngalekatu alxuraan dañ ci xam keneen ki buy yalwaan loo ñëpp dañuy génn yalwaan yi ay doomam yi mu jur toog ci peggam mhm. moo ci ëpp nag loolu choix la mooy ci wàllu joxe moo ci soo paree nga dem ci famille mooy ki nga xam ne mooy jox nañ ko sànq prospère choix la da nga yëkkati sa doom jox ko mais Sophie bajjanam yar ko wala nijaayam yar ko mu lay expliquer yenn metit yi muy dund ci biir kër gi kon massa maag jàmbur ba tey choix la ah mooy nga yëkkat sa doom jox sa sœur wala sa frère te am na si ñi ngay gisee ñu baax seen tante yar leen seen bàjjan yar leen seen nijaay ñu mag, ndax dañu jàpp ne dañuy xoole seen doom comme seen càmmin bi leen ko dégg noonu nga siy gisee ñoo xamante ni gis nga ci biir famille concurrence yi doon am démb da ci am kenn koo xam day bëgg mbokk am ci ñoo xamante ni na sa nit di nga bokk ak moom ndey ak baay sax te te te yéene ba nga am ci moom amu ko ci yow. Mm-hmm. nga yëkkati jox ko sa doom. Mm-hmm. mu def ca moom la ko soob. Mm-hmm. toog di jàkkaarloog yow te pourtant yow ba nga koy dénk sa njaboot yaa ngi xool ci moom sa doom defaru te pourtant loolu ci ginnaaw la ci enfance bi la. mooy concurrence yi daan am ci biir kër yi. ba bu ñu màggee dénkaane sax téye yi war duñ ko war te nit ñi di bokk benn gaño ak benn biir. ba tey ñu ngi ciy joxe yi nga xam ne choix la. ak ki nga xam ne étranger la sa doom day juddi jikkoy père mbay ngoone doy ma ma jël sama doom ne ko demal nga dem yaru ji kër papa parce que xam naa ni ah, waa day doo ah, day dóore maa ngi ciy ñëwaat hmm. parce que xam naa ne sama doom bu yaroo ëtt papa la ci papa mën a def ci moom man Sophie donte maa nàcc ci kaw mënuma ko def ci moom ba tey joxe choix la am joxe yoo xam ne du choix nga sëy waaw waa yaakaar la joxe yoo xam ne du choix mm-hmm. da nga sëy fekk waa ji am ay doomam ba pare nga war a uuf foofu choix amu fa. xale yi amuñu choix sax toog wala dem parce que dañu ñëw situation ne jamet seen kaw. Mhm. dese. dëgg la. dese am na jigéen yoo xam ne yar nañu nit ba mu màgg doom yi ci kër gi sax naan doomu jàmbur bi la sama yaay gën a bëgg ko ñun. Mhm. fekk ne du loolu dafa ñàkk ay waajuram. sa yaay jël yërmandeem yaree ko ko. xale bi màgg ñeewantal ko mhm. ba doom yi ci kër yi yaakaar ne yow doomu jàmbur bi nga gën a bëgg mu màgg nekk fierté fekk yërmande nga yaree xale boobu. noonu ngay gisee ñi nga xam ni dañoo ñàkk seen i wayjur ca jour ba seen way jur génnee àdduna ci la seen àdduna yàqu mhm. ca bañ leen joxe. Mhm. ndax amuñu benn wéeruwaay mhm. te pour man ñàkk yërmande weesuwul ñu dénk la jiriñ mbaa ñu dénk la baayo nga def ci loola neex ñu ngi ci éducation bi ba tey déception bi nit ñàkk na ndeyam ak baayam te dinaa ñëwaat sama développement ci suuf problème yi ngeen di gis yëpp bëri na ci mais ñun duñu xool source bi gis ngeen euh, am na loo xamante ni sama yaay da koy wax dafay wax njaboot du soxor bari na fi ñoo xam ne seen njaboot barkel nañu ca na ñu yore woon njabootu jàmbur a tax mhm. Safia da ngay génn ca biti kër buntu boo fëgg ñu ubbil la sa yaay moo yoroon ya doomu yor doomu jàmbur yor boo xam ne da lay topp ba foo mënti nekk ci am àdduna ay nit seeni doom torox nañu te toroxal bañ doon toroxal doomu jàmbur moo topp seen propre njaboot mhm. mooy ne ñun ñooy naxante suñu biir mi yàlla dafa juste nga teye doomu jàmbur di buntu xatal ba mu màgg yaakaaroo ci moom dara mu màgg barkeel ngay màgg di dawaat sa doom mooy temps ba nga rate woon au lieu ngay yar waa papa ayta kon léegi suma la nee comme ni ma joxe exemple bi tey sama xol dafa sedd ndax li mhm. nga ne di nga gis nit dem doomam di nekk foo xam ne lu mu laal muy loolu mhm. nga xam ne kii maanaam na yaayam yore woon doomu jàmbur ya. démb ak démb waaw waaye dinga kon nangu nga li ma la wax ne maanaam jigéen dina sëyee noo xam ne ëllëg dina génn doomam sol wala mu noo xam ne ëllëg dina génn doomam lu mu laal muy moom mosuma koo weddi ah nangu nga mosuma koo weddi dama la doon wax rek ci yore. ndax soo indee bii rek wala mën a nangu loolu. non musuma ci biir mariage. lu dal sa daf ma doon jox exemple yu mel noonu ci émission yi passé. enquête ah, mais damay léegi papa non dafa bëgg a compte. waaw papa maa ngi ñëw may ma ma continuer sama ma ma développement balaa ma koy fàtte. waaw ah, day xeex. déedéet papa ah, la xewoon ca weeru koor waaw la xewoon ca weeru koor waaw moom la jàpp ba tey waaw waaw waaw parce que baalu woo eh, eh, ma non loolu moom moo ko nekk waaw li ma leen waxoon ay caga ngeen monté fa mu yëpp billaay bi fenn mais man maa nekk ci dëgg ba loolu la guux. waaw papa baal ko parce que soo yaay xarit la père père moomoo nit ñi ba foo toll di wax say gros mots mais amul gros mots. léegi nag bu ñu la yow ma fitna maa ngi ci maa ngi ci point boo xam ne fenuma maa ko wax tey maa ko wax ëllëg sama mbokk nee na ma fu mu ko taxaw na waxal na nga ne ma barke borom Tuuba Mbàkke ci tey non dafa guux la da taw bi ko lan waaw ah da ngaa guux man ma ko def waaw baal na la papa man mii soxna ngay wax nak nekk Amérique dugg na xaritu bon waa bu jigéen bu dugg na xaritu bon ah papa daa am ñoo xam ne da nga leen jur am wàll ci ñoom am ñoo xam ne ñoom dañoo njaboot genre maman Oumy dafa jur ay doom. may ñu développé ci thème bi. ngir yàlla waaw may may ñu développé ci thème bi. maman Oumou am na doom bu toll ne. waaw Sophie merci Sophie. may ñu développé waaw waaw waaw. man loo ma wax baax. léegi man moom man loo ma wax ku mel man. am na doole ko mën a défendre de. waaye man sama morom la man xuloo ma. waaw da ngeen di da ngeen di waxtaan waaw d'accord waaw léegi baal na la. waaw léegi may ñu développé baal na la jeex na. waaw mën nañu développé yaay baal na la. yaay baal na la bokkuma voilà. donc nit barkeel na njabootam barkeel na saa da ngay tooñ de. waaw ñun ñaar wax su fi continuer nit nit njabootam barkeel na. ah loolu da ngay tooñ waaye la ma tax mu tëb rek weer bi daal ne mi ngi def. waaw mais Père dëgg leen su fi yow tamit ma yàq waxtaan bi. kii moom mën naa wax taxawal est-ce que mën naa eggali. man kay mën naa napp sax ba émission bi. yow mi yaa ma ne léegi yaa ma ne la. loolu la fee baax ayca Sophie ma eggali. jox ma sa kii sa fobet. dama dama ok donc nit barkeel na. Euh, njabootam barkeel ci ni mu yoree njabootu jàmbur a tax bunt bu nit fëgg fu mu mënti ne ci àdduna bu nekkee tukki àll lu mu laal sax foog ne moom moo barkeel fekk ne yaayam na mu ufee woon njabootu jàmbur la et vice versa topp nga njabootu jàmbur di bundu xatal bundu xatal ba taloo sa njaboot yàlla fay la ci mhm. moo tax sama yaay doon wax ne njaboot du soxor njaboot du soxor te mu doon phrase bu ma marqué gis nga Sophie am na ñoo xamante ni tey ñi ngi dañuy jàngi école mhm. yaay booy du dellu seen biir kër ndax la ñu fay fekk moo tax mm-hmm. traumatisme weesuwul loolu nga nekk par exemple sa kër baay wala nga nekk sa kër yaay boo jàngi jee école munoo ñëw am na ñoo xamante ni nekk nañ ci kër yàkkamti sëy nekk jigéen ne man yàlla naa gaaw am borom kër dem mm-hmm. ndax lan mm-hmm. la ñuy dund seen biir kër wala nit gàddaay bëri na doom yoo xam ne xamatuñu seen kër fu mu féetee parce que dund nañ fa loo xam ne amuñu écoute du frère du sœur du ndey du baay du kenn ku lay déglu. waxoon naa ko ci sama développement. Mhm. xale du nettali. kañ ngay wax la la metti kan mooy doon sa confident. Mhm. ñu lay xas di la bundu xatal di la wax yoo xamante ni da ngay obligé. dem sa yoon te pourtant sa yaay bi la jur mi ngi dund. Mhm. wala sa baay bi la jur mu ngi dund mais gàddaay nañu dem. parce que li nga xamante ni dund nañ ko seen biir ëtt moo tax. quand on parle de société et de fait de société dinaa leen limal ay nit yu bëri yoo xam ne da ngeen leen di woowee par exemple ay nit yu bon. alors que tay yenn yarin yi conséquences ñom lañu subir. Mhm. ba doon li ñu rien ne justifie nak lu bon. gis nga mariage ak yar affection daf ci am solo papa gisoo ñoo xam ne manqué nañu affection paternelle. waaw gisoo ñoo xam ne manqué nañu affection maternelle. jóge fa tëlbëti. voilà jóge fa tëlbëti. waaw nit a ngi jaay boppam. Mhm. te te te exemple bi ngeen joxe nii fa la lépp tàmbalee. Mhm. nekk ci kër sa baay jiit la ne ci yow. frère ne ci yow keneen ak keneen ak ba tu te souillé. Mhm. jaar na fa respecté mhm. jaar na fa ne benn respect ci mhm. di pour moom elle est souillée. góor taxaw nañ ko fi ne du il est juste efféminé. conséquence la rek. dëgg la passé depuis tout à depuis tout à l'heure marie Aziz Yeni, exemple non non damay parenthèse d'accord parce que parenthèse vous dafa am ci ñoo ne. aussi non, l'année dernière, t'as taxul efféminé c'est-à-dire. mën nga nekk sax góor yow kese nga doon fils unique sa kër. di ah. dëbb di togg ah, di je suis d'accord et tout et tu restes la ah. même personne tu restes un jël exemple rek pourcentage bu ndaw bi nga xam ne. ak comme wax nga ko ci président association yi ñi ne. Mm-hmm. nit ñëw ni la man damaa bëgg di def yëfu góor comme samay morom mais éducation bi ma yar bi ma am. maanaam nii laa dëgg la yaru jigéen day am mooy yaru jigéen day wax waxi jigéen di waaw def yëfu jigéen donc dafa dem ba di ko kiwee di ko teg mu nekk góor moom kase ngay tàcc muy fecc ba mu màggaale ko dama dafa ragal sama jabar góor toog nañu koy wax dafa ragal jabaram fekk ne manque d'affection maternelle la jël di ko remplacer ci soxnaam di nekk ci pejjam ndax lan yar gi mu yar nekk xale ba màgg mm-hmm. xamul luy wala mu màgg yaayam décédé ci loolu noonu yëpp noonu la jigen tamit di sey nga yaakaar ne toute sa vie tourne autour de son homme alors que dafa affection paternelle moy estime de soi bima len don wax ni rocc nañ ko ci xale yàlluwaan yu bëri muy goor comme jigen mhm. te tay moom constituer constitué société bi nga xamante ñu ne éducation amul sama dom amul domu jambour domu jambour buñ la ko joxee dafa challenge ci yow Safia parce que nak man je pense que ñi réussir te yar doomu jàmbur ñooñu la ñu war a wax waa góor. Mhm. parce que ce n'est pas évident. di nga yar ba yar ku yor façon caractère bu ne. am xam ne ils traitent mieux doomu jàmbur. que bien mais nga gumba tëxlu parce que doomu jàmbur boobu ñu koy woowee. bés bu nekkee fierté sa sak la. Mhm. mais nga jàpp ne yow kii nii su baaxee rek man sama doom du baax yàlla boole na baaxal toute une famille. yàlla boole na baaxal kii ay doomu baay wala ay doomu yaay nekk ci kër. te pourtant temps yu njëkk ya papa maa la ko bëggoon laaj mosoo gis. ay maire yu séyandoo. benn maire bi doomam yi kaase di tàkk. waaw tekki Macky daan nañu ko nettali. beneen maire bi doomam yi di di génn àdduna benn benn benn donte bakken yàllaa ko yar. ndax lan kenn kii moo doon def ay liggéey yu sew ci biir kër yi yoo xam ne pour ay doomam kase tekki la donc man xeetu méchanceté yooyu ci yar doomi jàmbur alors que yaatal ci jigéen lañ ko fekk baax. Mm. xool nit. war ko war a mën a defar ci hmm. jigéen lañ ci fekk ba mais aujourd'hui c'est les femmes que tu vois ñu jël di transformer euh, yenn doomu jàmbur yi ñuy nekk ay monstres de la société hmm. sàcc raykatu nit ak yeneen ak yeneen ah. pour lan parce que éducation bi dañ ko raté ci kaw joxe ba ñu ah. on va essayer de reprendre les téléspectateurs xool ba xam instant yi mën naa ne 88 628 89 90 allo allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def. alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème tey bi. Mm-hmm. waaleykum salaam. ñu ngi lay déglu. allo. alhamdulilah. est-ce déglu ñu ak sa téléphone directement. fu mënee nekk s'il vous plaît. allo.

yaa ngi ci jàmm. maa jàmm baax a baax. alhamdulilah ñu lay déglu sa gis ci thème tey bi di jégalu aussi ci li ngeen di xaar. permet ngoon nu wax dëgg la soxna benn. mu ne li doonoon ko loo allo. lu mu lu ne ne sàng day am ñuy xuloog seen seen seen jabar mm-hmm. bàyyi fa doom ji. Mm-hmm.

Allô Allô, allo alaykoum. Boy mené di woote di baña a xel ci télé bi wala ngeen koy sori tamit dina ci baax parce que des fois day may décalage si tu ñuy wootee à l'extérieur donc euh, le temps que ngeen di déglu seen bop day fekk ne ngeen en direct ba pare alaykoum. Allô. waaw soxna ci noo def. allo allo. maaleykum salaam. soxna si noo def yaa ngi ci jàmm est-ce que wàññi sa télé. allo. allo. waaw ma ne est wàññi sa télé bi tuuti rek comme ça déggante bi gën a neex. wa maa ngi jàll allo. allo oui. salaamaaleykum. salaam. waaw dama bëggoon a jàll ci émission bi. papa yaa ngi maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay waaw euh, maa ngi ziar mboolem ku fi toog. waaw dama dégg ci biir émission bi. ñuy wax waan yalwaan nag li ko daan waral moom lañu ñu war a xam ba noppi ndax nit daf daan jur doomu gis nit mu neex ko mu jël jikko jooju bëgg doomam am jikko jooju tax mu jox koy njabootam mm-hmm. allo loolu moo taxoon ñu daan yarluwaan hmm. ndax danga daan gis jigéen joo xam ne ji amul doom hmm. waaye jikkoom yaatuwaayam hmm. dégg nga yaroom eh, lépp luy lor nekk ci moom nga ne kii kat dinaa ko jox sama doom ndax yàlla dimbale ma ba sama doom mel ni moom loolu lañ doon doye yar ndax nit daana yar xale di gan dikk ci kër gi ba génn kër gi te du xam li mu sol lu mu doon loolu lañ daan doyab yar luwaan léegi nag dama dégg saa bu ñu waxee rekk ne doomu jiitle du doom ah kay doomu jiitle la dama am saa bu ñu waxee ne bàyyi jitle nangam nangam bàyyi jitle dina yar doomam mu gën a doom ji mu jur ba bu ëllëgee fu mu dem ñu ne diwa ko yar loolu nag ñu bare bare bari dañ koy dund ñu bari dañ koy dund mm-hmm. ma eh, doyuma seede ci sama bopp waaye nag li wér moo di ne man yar naa samay doomi jiitle ba te kenn ku ci nekk mm-hmm. fa nga nekk tey yaa fay chef mm-hmm. may wax ne képp ku la ne doomu jiitle du doom dafa doon koo xam ne kii jikkoom baaxut ndax lan eh, dégg naa sànq mu wax ne kocc moo ko wax waaw kocc moo ko wax waaye nag wax kocc boobu dafa mel ni jamono weddi ko jamono weddi na ko ndax man gis naa doomu jiit yi jëndal nañ seen papa oto plan doomu jiit la yoo xam ne yi jël nañ seen papa yóbbu leen màkka gis naa doomu jiit la yoo xam ne yi seen papa amut ak seen yaay doom sax sar ñoom ko yor seen yaay kon doomu jiit la du joom euh, jamono weddi na ko bu ñu waxee ne taalibe yi mhm. nañu bàyyi taalibe yi man taalibe la eh, boo demee Tiwaawoon ay taalibe fa nekk boo demee Tuuba ay taalibe dong nga fa nekk ña nga xam ne ñooy kilifa diine yi ñoom ñëpp ay taalibe lañ te ci daara yalwaan lañuy lañ ko kon nañ bàyyi taalibe yi d'accord bàyyi taalibe yi dëgg ndax saa boo génnee rek di nga génn di gis xale boo xam ne bii wóor na la ne boo ko tari lool saar bu ko tari. dëgg la. saa boo génnee. lu wér du taalibe. ah. dëgg la. soo génnee fii léegi léegi léegi léegi. te hmm. boo xam ne bii mu ngi def yaramu neen da nga def tànku neen. te nekkul ci daara yi boo nekk woon taril ma faatiha bu. bu jub sax du ko def kon mbir mi du taalibe yi mbir mi mu ngi nekk ci xale yi nekk ci mbedd mi waaw ndax boo demee ci boo demee feux rouges yi waaw gis koo xam ne kii jigéen joo xam ne ji dafay yor ay xale xale yooyu di wër wër di yalwaan di ko ëñ mhm. boo demee fii Castor di nga gis ay ñoo ci yeneeni réew la ñuy jóge ñëw da nga di yalwaan si ànd ak i xale xale yooyu du ñuy taalibe hmm. kon nañu bàyyi daara yi tuuti d'accord d'accord sëñ bi kontaan nañ bu baax ci sa ci sa participation jërëjëf ñu jël keneen 88 628 89 90 allo allo 88 628 89 90 transfert. Allô Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît. Ça va Je voulais participer à l'émission en direct. Vous êtes en direct, monsieur. Allô, madame Vous êtes en direct sur Time TV. Allô, madame Oui. Allô Allô, oui. Vous m'entendez Oui, on vous entend très bien. Oui, je voulais participer à l'émission, s'il vous plaît, en direct. Vous êtes en direct Oui. Vous êtes en direct en ce moment. Ah, d'accord. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, Nono. Comment tu vas Mon nom est identifié de Baïma dans l'anonymat. Très bien. <laughs> Alors, euh, je salue tout le monde, tout le monde sur le plateau. Uh-huh. Euh, je salue ta collègue Sophie Maiton, tout le temps, ce message me l'ai envoyé. pour mm-hmm. euh, apporter comme contribution, c'est une histoire que je voulais raconter rapidement. Hein. D'accord. Alors, c'est dafa am dafa amoon jabar. d'accord. Euh, allo. waaw. allo nga une koo xam ne dafa amoon jabar. waaw dafa amoon soxna donc euh, mu séparé ak soxna bi yàlla may leen doom. d'accord léegi mu dem ba ci biir bi ñu séparé woo soxna si décédé doom ji mhm. des ci parent si. Mhm. yàlla may ko mu dem ba ci biir war a takkaat beneen soxna. Mhm. donc ni ko sànq ndaw si doon waxee góor yi ni ñuy wutee jabar.

xale bu jigéen boobu ba mu ñëwee gis doomam moom xale bu jigéen boobu la nangu mhm. ndaw si téye xale bi téye xale bi li ma lay wax nii bi a peut-être huit ou neuf ans xale bi war na am léegi dix ans mhm. parce que année prochaine normalement la war dem see mhm. xale bi cofeel bi mu am affection bi mu am ci ndaw soos ñu doon wax waa ni kii baaxul amu ko sax ci papam complicité bi amu ko ak papam donc ce qui ce qui montre que gars yi nga xam ne dañuy wax naan yaay jiitle lii jabar lii jabar lële dugg na fi génn na fi mhm. le plus important c'est da nga ni ndaw soos di téye sa njaboot yow boo ko indee sa biir kër nga bañ a jiital yow say intérêt parce que yow sa premier intérêt mooy sa intérêt njaboot pas sa intérêt yow personnel bi ci des mooy sànq bi ngeen di wax naan les hommes qui font les travaux ménagers les corvées à la maison affaire yooyu y a dans certaines familles ta collègue l'a dit tout à l'heure bir kër yi da leen di téye façon boo xam ils ont même l'impression que seen parents yi juruñu leen ñoom que étranger yi nekk ci biir kër gi c'est-à-dire que doomu jiitle yi wala naay yi wala gan yi ñëw ci kër gi ñoo leen ëpp part ci biir kër gi et sans que ce qu'elle a dit ça m'a ça m'a éveillé les yeux parce que elle a parfaitement raison nit dina xëy suba teel di dem lu mu sotti fekk lu mu nekkee xale dafa souffrir nekkate loolu la ko yaayam doon liggéeyal ci njabootu ñeneen ñi nit tamit dina xëy suba teel am jeunesse une enfance épanouie xëy suba teel lu mu am lu mu làmb du ko jot lu mu jublu mu daw ko fekk loolu la ko yaayam liggéeyal wala loolu la ko ay parents liggéeyal ci biir kër parce que nit tamit loo def doomu jaamur yàlla fay la ko parce que lu bëri li ñuy fàtte mooy nit yooyu xale yooyu la la yàlla di yónni ñuy ñëw ci yow yàlla dénk la leen yàlla dafa jaarale sa wërsëg ci sa loxo muy seen épanouissement di seen lekk di seen naan nga war leen ko jox

te loolu la ñuy répercuter aujourd'hui en tant qu'adulte. tout à criminel yu bëri gis nañ fi histoire et ino. Mhm. mais quand ils sont partis au tribunal kenn ki chaque fois bu évadé woon prison lan la doon def pour daw dem seeti yaayam. Mhm. donc ñu ci bëri manque d'affection boobu ñuy am mooy tax bu ñu màggee. ñuy mhm. nekk ñenn ñi di nekk ay délinquants ay bandi ay voyous ay raykat nit. alors que au fond c'était pas des gens méchants hein. ils recherchent ils à à s'affirmer par rapport un oui. manque qu'ils ont eu, un traumatisme qu'ils ont subi quand ils sur la population. Effectivement. Voilà. Donc, euh, je vous remercie. Merci, à vous. Et euh, à très bientôt, Inch'Allah. à très bientôt. Merci beaucoup. Euh, Sophie, prospère qui coupé ni, là, le point de importance, vous ramener Sophie, là, le c'est-à-dire, allez, ni ni ni yare, mouy don sa dom ak domu jambour, ah, dans le futur des répercuter ces seen ay comportement mhm. su fekkee xale yi traité wuñu leen bu baax on est agressif ak nous, ñu est di maltraité bu ñu màggee dañuy bëgg fay ci ñi nga xam ne amaane defuñu dara parce que gis nañ ko mais est-ce que su fekkee nii la continuer mhm. duñu dem ba à un certain moment on se retrouve ak une population boo xam ñëpp presque ay mécontents la ñuy nous ñoo xam à chaque fois dañuy bëgg di révolté wu ci kaw nit ci mhm. effectivement ok loolu yàlla yàlla mën nañu d'Imbalé, dimbale ah yàlla mën nañu ci musal te bon aussi c'est un point de vue boo xam euh, d'accord accord ma à 100 pour cent. Mhm. ndax nit jur na doomu boppam. Mhm. mun mu màgg mhm. en tout cas jaarul fi nga ay way juram bëgguñu jaar. n'est-ce pas lolu gis nañ ko hein, pour dire tout simplement qu'on en voit de toutes les couleurs hein. euh, mais quand même pour dire que m'a sama sans que ce film ait déglu ce discours souvent c'est yalla qui revient. yalla yalla yalla parce que effectivement fofu la sirou bi nek mm-hmm. man ko wax sank sama njëlbeen di wax bi may wax borom ben beut bi nga xamne mm-hmm. fo meunti nek ak lo meunti def mi ngi lay gis mm-hmm. ya, pourquoi ma wax lolu gis nga affaire bi ñaar la ah. comme niñ ko waxe fierté ak déception damay njëkk ci déception bi parce que souvent moy waral yar yar yar ko jurul metti lan motax ñu nan lu soti am borom parce que loolu aussi ci forme xeetu war la bokk war gis nañ ko fi liñ doon wax sànq dans le milieu euh, de la lutte mhm. jur doom dugal école xel ma neexul nga dugal métier xel ma neexul yàlla may def mu am kantan màgg njool ñuy nekk ci moom sonn ci moom dem ci moom sonn ci moom ba signé contrat jot nga ñëw taxaw ne sama doom la maa ko delloo ma sama doom loolu aussi day tax ki kenn ëllëg mhm. du ko encouragé pour mu am Euh, comment dirais-je kooku. Euh, mën a déception dafay feeñ. wala jur doom tout simplement sànni wala joxe sax entre guillemets. mu dem ba war a dugg néeg néegu néeg euh, ba war a yi. nga doog taxaw ne sama doom la. du fi jeex. forme forme wor la. jur doom mu ne màgg léng léngaaral. fekke woo ba ay couche. sonn fekkee woo ba ñuy yóbbu école fe fekkee woo ba muy feebar euh, trois heures du matin ñu jóg di ko waral di ko wutal ordonnance di ko wutal pharmacie di ko wutal médicament mu dem ba war a waaw am na ndeysaan comme tu dis mu dem ba war a tekki yaa ngi dégg nga période taxaw na sama doom la loolu yëpp on en voit te yooyu ki ca sonn lay nekk déception ci moom beneen bi nekk fierté mooy li ñuy waxtaanee man ma jàpp ne képp ku la yàlla booleel hmm. mu nekk ci sa pegg rek hmm. fierté la war a doon pour mu pour mu réussir mhm. ça doit être une fierté koo jur ak mhm. koo jurul ak ak keneen kenn ak lu même donte sax mbokk la mu sori wala sax bokku leen dara man damay wax ne fierté la war a doon pour seen pour seen réussite ma revenir nag ci li nga doon wax sànq loolu nag li koy mayee xam nga mooy lan mooy secret yàlla boobu mhm. cest à lépp looy def ci àdduna rawatina jëflanteeg doomu aadama mm-hmm. na yàlla tax mm-hmm. kookoo neex a digaaleel mm-hmm. kookoo neex a lebal xam nga neexal lebal mënul weesu ki taxaw ne la boo ma lebalee benn ma fay la fukk ko kookoo neex a lebal sànq danga ko wax sa biir yi wax xanaa xamoo ne sofi bari na ku sonn ci njabootu jàmbur fekk yàlla njaboot ga màgg am beneen taxawaay yàlla lay dencal yow li nga jural sa bopp teraanga ëllëg lay fayee yow. lu wér du fi ah, aussi bien ñu jigéen ñi que ñu góor ñi. Mm-hmm. waa beneen affaire a nga ci le sens contraire xanaa xamoo nit a ngi def ci doomu jàmbur loo xam ne doo am lu neex say doom ba ba buf tawal. dëgg la na nga leen ah. Ah, kon yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ne lu ma lu ma bind doomu aadama laa ci gën a fonk mat nay bàyyi xel. nga jubok ndeyam mët naa bàyyi xel nga baña jubok jubóog ndeyam mët naa xel nga bëgg baayam mët naa bàyyi xel mm-hmm. nga bañ baayam mët naa bàyyi xel nga bëgg tàntaam mët naa bàyyi xel nga bëgg wujj sa wujj mët naa xel nga bañ sa wujj mët naa xel parce que lolu yëpp ay minda fi nu la lu gëna neex xam nga bénéfice mënul weesu yar nit mu mag ba tekki man gis naa ko sa fi gis naa ko sonn ci nit ba yàlla may ko bant mu ne tëf bàyyi ndeyam bàyyi bàyyam tuddee ki ko yar. dëgg la. du fi jeex dëgg la loolu rek pour man doy na ndam. waaw ndam la nit yar nit. mu juddu màgg xàmmee bàyyi ndeyam bàyyi bàyyam jël jël turandoo jox la. bàyyi sax Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam jël tur jox la ndax ndax fu mu toll ci yow. sànq wax nga ko xanaa xamoo ne nit dugg na ci nit ñu dénk la ko nga di ko métital fekk métital boobu koy métital ci la koy yàlla jaarale moom pour mu nekk mooy mooy nekk jomam ëllëg c'est très important donc pour résumer ñuy bàyyi nañuy soor yàlla ci suñuy jëf mm-hmm. parce que xam nga ki ki nga ci ki nga sonn taxaaroo pay ci moom parce que yàlla nga ko digaaleel moom mi nga xam ne moo ne lu ma bind doomu aadama laa ci gën a foog yow la mu cay def da ngay sama borom bi nga xam ne kii ñu ma jox moom lu mu am moom la gën a fonk moom laa jaayanteel te dagg ma la tekk euh, bi ñaar la am tekk bi ñaar la am nga tiit nga bokk nag uh-huh. du ma ne ñàkk jom ba dee mais waar ba dee bokk ci ñi koy tiitaroo te mu uh-huh. leer la ne bu doon sa sago du baax uh-huh. wala nga bokk ci ñi nga xamante ni bu taalee otom sax nga ne ko ah xolal de fu mu jëlee oto bi ah xolal de maanaam dafa am ñoo xam ne yar ba ba ca tekki ba sax du ñu bàyyi mm-hmm. yàlla nañ ci yàlla waaye yàlla rek non ci yar ba ba ca tekki ba c'est fondamental non du ñu bàyyi c'est fondamental wallaahi dëgg la Aïcha si la vidéo de Benoît est prête ñu dem jël ko daal di ñëwaat ci plateau bi mu mën a waxtaan ak maman Oumou Aziz ak sama papa mm-hmm. salaamaaleykum Ben ñuy nañ la bu baax di la ziar

ay góor takk jabar jël seen doom bu góor yóbbu ko fi muy nekk ak jabaram ju bees yi Safia mu nekk jabar ju bees ju bon je te dis en connaissance de cause bu paa bi demee liggéey xale bi lu nekk la jabaram bi mu di def xale bi di muñ bi def da ngay gis des fois xale yi dañuy dem ba toog am lu leen manqué parce que dañu ju bon bari na Senegal. Sénégal li ma lay wax bari na jigéen ju pon gor bu complexé gor bu fayda fekk ci ko même bu ko dom ji ne la tante di def gor bi du si tek baat parce que amna na fu ko gel bi japp poñ bari na mais man bima la déplorer sank ya trop d'enfants yu jigen, yu andak sen yaay sey

doomu la doom la am na jigéen yu baax yoo ne seen doomu moo gënal seen ay doom comme ça góor yi mais c'est complexe c'est très complexe parce que y a une chose <clears throat> jamono moo changé jël sa doom di ko yóbbu muy vacances yi sax ay kër léegi ku ko mun bàyyi na nga ko bàyyi doo xam kër googu lu fa nekk ba nga fay sa doom léegi ay deux mois bu école trois mois trois mois yi mu fay def dina fa jëlee des fois lu bon si kër gi te bu ñëwee du ko mun donc man je prône même bu féké dañ na Sénégal dëkk la bo xamné ñun dañuy dimbalante mais sa dom bu féké mun nga ko yaral sa bop te dépendre si kenen defal ko sa bop parce que doo am rëccu Sénégal tamit tam nañ ben affaire da ngay gis ku yar xalé juru ko def lu ne si xalé bi xalé bi bu maggé gis ay papa mak yaayam papa mak yaayam bu ko récupérer fekk papa mak yaayam dañ ko abandonné won wala papam abandonné len won mais bu société une koy non ki sa papa la sa yaay la le rek delluwaatal ci ñom man je dis non su boba biñ la gédé ñom ki la lu baax considérer comme sa papa ak sa yaay Donc c'est am bon mais on est dans un pays comme ni ma koy waxé non ñi ñoo la jur dara du dara ba la donc si ñi nga la yar ñoo la ba ni nga donc c'est complexe mais nañu xalaat l'avenir de demain c'est qui c'est les enfants ñu yar leen ci yar mais beaucoup d'enfants souffrent au Sénégal beaucoup de grandes personnes souffrent au Sénégal parce que nous leen je vous remercie et puis nous euh, nañu am na fànn wow soo ko ca toppee da koy fekk foo xam ne day dëggu te li koy may doole foofa mooy jamono soppeeku moom mooy ana jël sa doom ne dama koy yóbbu vacances kër nijaayam wala kër bàjjanam wala rek dama koy yóbbu ci kaw ngit dem joxi koko mu dem fa vacances wala mu yoral ma ko wala mu yaral ma ko ndax fi mu ne kenn talatu te yar kenn waaw wax na dëgg de jabo ji wax naa la ne la li fi nekkoon démb ak bërki démb mi ngi en voie de disparition day dem ba cosaan ak aada dootul sampu lii may wax samay kàddu laay yëkkati mais xam naa ne mënul nekk ci këru àdduna dama leen ne lii moom moo amoon démb ak bërki démb mag ña lii nan daan jëflante kilifa yi lii nan daan def mag ñi nii nanu yore woon kër yi nii nanu ubbeekoo woon nii nanu yaatoo woon nii nanu mënoon a boote waaye loolu amatul jamono moo taxu su ma xel ne ma ñu ngi ci nangami siècle vingt-et-unième siècle moonte nag des na benn par benn fa ndox daan taa soo demee fekk fa tepp-tepp <laughs> mais ak a jafe ndax soo waxee Sofia wala Sophie Gueye dina la indil benn argument boo xam ne sooy dox di ca fekk tànk ba. baax na suñuy wax du fanaan it de. waaw day àll rek. ah kay dama koy gis. Ah. waaw nangu naa ñu nit dañoo dox de. waaw déedéet non maanaam déedéet. waaw dox yaa ngi fekkee la. waaw dafa mel ni ah, yow si li nga wax kon diggante démb ak tey am na cassure fu mu am. bien sûr. waaw ah yow tamit. léegi déglu la may wax léegi damay lay dama lay laaj rek dafa am cassure bu am si diggante bi cassure boobu ban génération sa génération la wala. ñam ñoo rompre chaîne bi. waaw bon bu la neex mën nga koo jiiñ mais xam naa ne ñun sunu génération mosoo dóor nit mukk mukk mukk mukk mukk jublu ca yar ko di ko jubbanti ba nu daw yóbbu la police amuloon benn loi boo xam ne wote woon na. ne la femme dafa tolloo ak góor ma ba bàyyi naa jigéen waaw waaw waaw waaw <laughs> mais papa yéen da ngeen doon dóor pour yar yéen da ngeen doon dóor pour jubbanti ah, man de maa ngi doon wax suñu jamono li mu amutoon suñu jamono suñu jamono xam nga yooya amutoon ñeme woo gis benn mère bu jóg di jiir mbagg góor gi ci kër gi naan naan la femme est l'égale de l'homme amoon na. waaw ban année nga ah, ban la. si. mais tamit yéen seen jamono tamit yéen da a sukkandiku. mais papa daan nga dugg ci kër fekk maire bi di diriger ndax alaaji bee koy jox. d'accord d'accord léegi. maanaam su ñu desee su ñu desee tuuti papa ci thème bi. waaw Benoît am na point bu mu laal. waaw muy. xam nga dañuy wax dénkaane. waaw mais li gën a sedd li ñu gis. waaw instant société bi corona bi sax moo tax instant yi. beaucoup de choses peut ñu bàyyi ko. waaw mooy vacances yi. cest école bu tëjee rek. la lay nga defal say doom ay bagages ne demal vacances sa kër tante. Mhm. am ñoo xam ne seen kër meilleure amie sax la ñuy seen doom juste pour. Mm, waaw wu ñoom. waaw mën wu mën a rop nekk ci jàmm waaw waaw mën a vacances gis ñu dem vacances bàyyi seen doom Sénégal dañuy gis ñu dem extérieur bàyyi seen doom euh, euh, dafa dem ba dafa dangereux. parce que sa doom yar bi mu am yow yaa ko xam yaa xam moom caractère am caractère ko ci kër boo xam ne amaana da xamante miinante miinante li mu bëgg nga xam ci moom rek ngay xam ci na sax ñoo xam ne sax duñ doon sa mbokk sa mbokk li mu bëgg nga xam moom ci moom mois yooyu rek wala ci 2 mois wala 1 mois et yooyu mën nañ yàq sa doom gis nañ ci ñoo xam ne ci vacances lañ leen yàqee waaw suñu ñëwee ci kër gi dañuy changer complètement waaw soppeeku doon beneen nit

mais yéen li ngeen bëgg a déglu ma mois ah. déglu ma yar yar dafa ah. amoon. te hmm. fan lan la daan yóbbu ngay dem vacances. Hmm. xam nga mère dañuy wax ndayale nañ la diw. Hmm. sa ndijaay diw. sa bàjjen diw. ndax lu tax ñu la fa daan yóbbu. yar ga ñu gis sa xale ya ah. kilifa yanu doon ñu bëgg a yow nga dem roy fa. te gis nga soo daan soo dee nit ku baax. soo demee ñooñu nga leen di xool. jikko yooyu da koy jóg yóbbuwaale ka te kenn daawul la police. Tek loolu amna. mais maman Oumou mais mais man pour man pour man suma analyser ay affaire de vacances sax c' venu juste avant ñun suñu génération parce que mak ñeuk njëkk jëk yi ñom dara lañ daan yobu xalé. après su paree mu ñë ñi mu ñëwaat ci kër yi. après loolu généralement su fekkee ne xale bi fay dem dara c'est pour ñuy wax né période vacances mu dem sàkku ji xam-xam. mu ñëwaat. après nak ci le mbiru ay vacances yi ni ñuy wax ñew té les objectifs diffèrent kër diw. ak kër diw boobu bu dee jikko la woon aujourd'hui mënatul ne papa moom da doon yar démb di dóor nee na pour jubbanti kii day yar di dóor ah, ah. parce que saa yu xëyee ci sa kaw lay déverser naqara waaw c'est-à-dire bi di dóor Sophie ñun dañu daan yar dañu dóor ba di ñu yeew mm-hmm. pour jubbanti ci ndakaaru gii pour jubbanti jubbanti di dem daara si ndakaaru gi jubbanti la way yi ñu ni daan yare di ñu yóbbu suñu kër yi bàjjan soo demee foofu ñu làbbali waaw léeg-léeg di nga naan def loo xamante ne pour te corriger sa parent du la corriger danaan la demal seet sa nijaay diw soo demee seet sa nijaay diw nga dey simmeeku fudd la ba ni ñeet la nga tontu sa yaay la nga def dellul nga dellu yar yooyu moo amoon léegi amatul lu tax père ñoo na wax di affaire ay loi mhm. muy wax naa góor ak jigéen yam góor ak jigéen mus munuñu yam si àdduna ah. Ah. munu munul nekk non musulman góor ak jigéen munuñu yam bi ñu fi waxu parité addu fii rek la yam so dans la société mais pas si biir kër kër góor mooy jiitu jigéen topp kenn mënu ci lu ah, ah, ah. loi yi ñu indil xale yi li loi yi ñu indi indi naan pour xale yi nangam sàggam dugg na fi génn fi nit ki di nga yar sa doom si biir di ko régler di ko lijjanti te da dadul xalaat loi mais maman Oumou yow ak papa il faudra ngeen ngeen accepter aussi que les objectifs diffèrent mm. kii da daal dóor doom parce que objectif am mooy jubbanti buñ ñëwee nii père lu tax ngay dóor sa doom boo waxee da ngay day ci day fàq sax bant jàppale la mais di nga gis nit ku doo doomu jàmbur prospère ba muy bëgg dee boo laaj lii laa ko la wax mu jottali ma ko mu bañ c'est des choses qui existent te mooy li nga xamante ni déplacement d'objectif la dañuy wax ay dootoo leen roy démb am na ñoo dafa am yenn valeur yoo xamante nit ñi utiliser tuñ ko calculer tout parce que l'île est intéressé moins plus nan ngay plus doomu adama ko. tout à l'heure di ça may parce que daf généralement il faut ngeen euh, téléspectateur mais il faut le dire ñun ñuy tabax dara di liggéey ci di mais nañu nangu ni ca bir fofu da ngay gis kuy jël doomam mi yor dégg doomam yi dañu génn si biti mm-hmm. nga gis ñoo xam ne dañuy bóof seen i doom mm-hmm. maman umu bàyyi doomu jàmbur ñu génn ci biti donc exemple yooyu kenn ñu koo tere joxe c'est pour dire que ne am na ñoo xamante ni lu dul seen i doom du nit lu dul seen i doom duñ ko gis et il rate l'éducation de leurs de leurs enfants mm-hmm. parce que ça fait diggante yar le temps ngay yemale ñaari nit yi le temps ngay xool ñaari nit yi te góor bëgg na jabaram fonk soxnaam ci ni mu yoree doomam. gis nga li olof wax naan dóor doom làq doom fonk na soxnaam ca nam ko yorolee. doomu nan lañ koy waxee. doomu jiit leen parce que lan daf koo def ci moom yar boo xamante ni. Mm. sa yaay rek ngay dégg. mais ci kilifa gi. Mm. dafa xam ne lan moo lan moo lan nit def ci boppam ne kii ndeyam la. Mm. du concurrence am. du parce que am na profilu doom yoo xam ne pour nga yar leen problème la. ñoom it dañuy ñëw. pour ñoom seen yaay ji dem rek. Sophie loolu mooy indi moo tax ñuy wax différence nit lu ko wutaleeg mala. nit nite. nite nit da ngay nite. Hmm. sànq prospère wax na ko fi nee na léegi njabootu léegi. póot la rek dangay ngay rek weer. waaw kenn xamul kuy weer nit ñi nañu dawal mentalité boobu ne fa la ñu toll. yàlla rek xam ku lay mujjee ëllëg. yàlla rek xam ki lay téye ëllëg. di nga yor sa doom def ca lañ ca war a def. Hmm. yar ka fa nga ko war a yaree mu am réussite mu wëlbatiku di la cam. Hmm. doomu jàmm jàmbur wëlbatiku téye la moo tax gis nga nit looy def rek séddal ëllëg ndax li ñuy wax ëllëg du añ du reet bu mën a sedd la moo tax nit koy munti yar même dans la rue si tu vois ay xale yoo xam te ñi ngi def naka salu noonu waxal ak ñoom jubbanti leen jéem a seet noo leen jéem a récupérer noo leen jéem a récupérer man il m'arrive parfois dama koy def gis ay xale yoo xamante ni damay jéem waxtaan ak ñoom du bala may dem safara waxtaan ak moom def nii def nii wala ma gis xale bu dul naka salu noonu ma dem di parent bi ne déet kii kat gis naa lii ak lii war nga ko mën a dem def ci moom mooy li prospère di wax nañ ci yàlla loolu am na problème loolu rek la parce que la société doo ko mën a ne na dem c'est la société condition yi yaayam sëyee ci biir kër gi saf wax na ko sànq moo tax condition yi yaayam ñëwee ana sa yaay mu ne la dafa ñëw ñaata temps la la sëy foofu mu ne la nàngam wala nga ne ko ana ana ana sa papa mu ne la mi mi ngi fii di ñu dégg hmm. mais dafa bëgg sama tànta ba lu ma ko wax xalaatuma ko sax wax dara hmm. mooy li nga wax sànq iman benn conseil rek laa ko jox hmm. maman um muñal te nga am jom te nga jël kenn def ko sa confident mm. parce que da ngay dem wax sa bàjjen ñu indi laat sa papa ñu làbbali la mm-hmm. nga dem wax keneen ñu làbbali la donc confidence bi kenn rek nga ko mën a def muy yàlla est-ce que tu sais que xale yu ndaw yi ci kër gi kër yëpp ñun ñëpp on est passé par étape boobu bon ci ñi nga xam ne dañoo dañoo yàgg am fois bi ñu nekkee xale mm-hmm. mooy wéet di wax ak yàlla mm-hmm. man dama koy conseillé xale yu ndaw yi dama leen di wax yàlla da lay dégg comme ni la sa mam di dégo ak sa xarit def ko sa xarit lu la nga c'est des éducations yu am. mais xale yo yow da nga di voilà té maman lu am mhm. pourquoi mam mami généralement di mhm. pourquoi té pourtant sa wayjur mën fi yar la parce que maam yi dañuy gis yërmande ci ñoom man dama koy wax dama ne yar yërmande moo ko jiitu. mais léegi dañuy wax maam yi ñoo yàq xale yi. non non non yar yàq bi non yàq bi mooy xam nga yàq bi mooy mooy gàtte ñun bu ñu wax yàq gàtte la mais ci wàllu éducation. Mm-hmm. yërmande bi sa maam bi am am na bëri ñoo xamante ni tey ci seen i xel ci seen i comportement yari nu mag la. Mm-hmm. ci ni leen mag yare te pourtant maam la mooy soit ki nàcc ki juut nàcc sa yaay wala ki nàcc ci sa papa. donc pourquoi forcément il faut qu'il y ait un lien de ce genre. Mm-hmm. mooy ba tey autrui du fa am pour que éducation bi mën a quasi parfaite wala pour nga mën a am yërmande ci ci ci ci nit ki. d'accord Prospère laataa may jox kàddu gi Aziz. merci beaucoup euh, li ma doon wax sànq rek ci lay rebondir. sànq yaa ngi koy wax. effectivement parce que ñun ay sénégalais nekk biir Sénégal. Mm-hmm. li fi nekk ci lu baax ñu di ko encourager li nga xam ne jàpp nañ ne safaan ba la ñu di ci waxtaan. pour effectivement mu am chopité. Lolo c'est le minimum pour que bokk dans une société parce que lolo nga wax sank yow ci ci ci ci xale yi nga xamné ni euh, ñi ngi ci ñi ngi yalwaan wala wala ñi ngi ci daara yi di nga ci am xalé bo xamné di nga yëkkati valise yére jox ko mu continuer di ñëw sa kër pendant pendant cinq ans do gis mu sol ci yére yi ben ki ko koy yónni kiko ko ki ko ki ko ko ay doomu ma koy sañsee c'est des choses qui sont là ñu koy dund parce que réew mi aussi Sénégal aussi euh, république république la kenn c'est-à-dire kenn ëppale wu fi kenn. lépp lu ñu xam ne jàpp nañ ne lii kat lu baax la dañ koy waxtaanee pour mu gën a baax. xanaa xamoo ne di dikk di wax lu di di wax lu baaxul sax dina tax ki baaxul woon jéem a baax moom. Hmm. c'est important. may wax encore une fois que ne euh, amul lu gën a nekk fierté ci àdduna hmm. nit yàlla dénk la nit. Hmm. moo xam ki nga jur. moo xam ki nga jurul. ba ëllëg nga gis ne am na tekki na. Mhm. Mhm. pour man fierté warul mën a. am na yar sax balaa tekki bi sax nga gis ne am na yar. c'est une personne qui respecte. oui oui oui oui enfin quand je dis tekki mooy. Mhm. loolu yëpp euh, ñoo bokk saag bu ñu nekk. réussite bi yar bi tout ça là. pour man fierté mënul ëpp nga gis ku la yàlla dénk parce que damay wax ne. yàlla mi la jox benn bat yàlla xam bu la joxoon benn doom ak benn doom bu góor benn doom bu jigéen mu doy mais bu la ci boolee ñeneen parce que bëgg nga yar a tax. mission là, mission là c'est comme effectivement bu mettee nga dénkaane bu neexee nga taxaw ne maa moom nañ ko moytu mm. parce que boo ci sooree yàlla boo ci sooree yàlla xam ne kii kat dinaa jëflanteeg moom man gis naa ci des cas en a pour finir ah nit jur na doom sax maye ko ba mu dem ba am borom ba dem ba war a takk jabar mhm. nga per périer taxaw ñu boole doom jaar jabar taxaw la parce que fa fa a njëriñ la commencé mhm. wala woo tax ñu ne lu sotti am borom waaw mhm. d'accord xam naa dañuy dañuy jéem a conclure rek incha allah dem ba mercredi xam naa tey moom père du wax déedéet nañ ko ne ba fajar parce que père tey dafa sonn père fay daal ay eh, obali nga jël daal <laughs> déedéet pourtant dañu sàcc téléphone am ki ko sàcc moo ko lor dafa découragé dañu sàcc téléphone am ay contactam yëpp ñoo dem waa diaspora bi ñëpp amatul benn numéro sa yow sama téléphone yëpp waa NBA yi ñoom ñëpp ah. seen numéro dem na ñoom kii ñoom góor gi si <laughs> oh. Dieng ñoom Famara Diédhiou oh. ah oh. ah ñoom ñoom ñu am kii bëggatuma am sax téléphone <laughs> bëggatuma am téléphone. waaw père luñ la def noonu. ah sama téléphone rek donc. doom yi xam nañ ni sax la mel nii parce que oh. ñu doon laaj depuis tout à l'heure. waaw père tey moom day bëbële. père lu xew ah, loolu eh, kii dañuy def dernier tour de table. mais on a deux thèmes qui vont venir. Mm-hmm. Euh, semaine bi ak semaine bi ci topp. Mm-hmm. boo xam ne dañu bëgg Sénégalais yi. Mm-hmm. ñu waxtaanee ko seen biir. parce que suñ ko tegee avant il faut qu'on en parle. Euh, dafa am proposé euh, tout à l'heure ci mm. direct on en a profité aussi mu ngi tudd Mamadou Diouf. Mamadou euh, Diouf pour continuer beneen thème boo xam ne commencer ak Maya. Mm-hmm. méthode contraceptive yi nga Sénégal ñu mm-hmm. conséquences yi def ci Sénégal. ne conséquence bi surtout <laughs> conséquence su conséquence yi nga conséquences yu négatives la mhm. yooyu lañu bëgg a Vous paré ci bobu ah. ñu dem ci li nga xamné mom moy hmm. euh, li nga xamné moy ah, ah. nga avorté <laughs> mais avortement avortement médicalisé médicalisé mais nga xamné dañuy dem seen mhm. papa wala seen nijaay wala seen mbokk ku len wala ëmb buñu bëggul waaw médicalement parlant ñu dem na la ah c'est possible que ñu dindi ëmb parce que eggagul fu nga xamné mën na la lor wala ñu jinj ko nit mu bañ ñu ne kon nañ ko dindi non non jotagul jotagul débat bi jotagul damay nekk di annoncer nit ñi rek né ñaari thèmes yoy la ñu fas mm. tégalé parce que xam nga ku waxtané méthode contraceptive <laughs> mm. méthode contraceptive ñi koy utiliser c'est pour bañ am grossesse mm-hmm. Mm-hmm. bu démé bambas grossesse ñëw il faut que ñu waxtané li nga xamné ñu ci bëri amna wala amul mais Sénégal amna ñu ko avortement médicalisé on va essayer de prendre les gens ñu ci liguey ñu inviter les mm-hmm. ñu waxtané ko. Ah. parce que amna Sénégal xalé yi nga ils non on va dire elles ne sont pas mariées.

bëgg nañ xale yi ñu réfléchir si xam conséquences yi dem saytu ko bu baax a baax a baax parce que mu ngi yàq société bi dañ fi dégg conseil corps de l'utérus leneen ak leneen yoo xam ne il faut ñu dem gëstu xam lan moo koy andi te nañ ko teg ci table bi ci gis-gis mooy deux euh, prochaines euh, semaines yi insha allah daañu ko waxtaanee dès dimanche di déjà dinañ andi première ah. euh, premier thème bi ah. muy méthode contraceptive yi muy def ci organisme xale yi léegi nag sofi su boobaa rik ko waay jaata na nga góorgóorlu ba indi koo xam ne daa bokk ca métier ma incha allah dinañ ko jéem fexel ba indi koo xam ne donc tu sais des fois genre émission yi nga xam ne day am contradiction day am xëcca xëccoo mhm. des fois nga nga bëgg mhm. invité nit wala nit bëgg ñëw sax mais ak concept bi day xaw a ragal day ragal day ragal nañ def lu ñu mën pour am fi koo xam ne hein? métier dina dina ah, dina jëm ci loolu ba pare am fi jeunes yi nga xam ne aussi dañuy toog ñu wax li am ci dëkk bi parce que ça sert à rien toog ci télé ne lii moo am ci dëkk bi te ñun ñi si boppam maman euh, maman maman umu xam na bu baax li may wax parce que day def genre liggéey yu demee noonu hein? am na xale yoo xam ne dañuy nekk ci école primaire wala on va dire dañuy nekk ci école secondaire pour ne pas pour ne pas tiital yenn parents yi di utiliser méthode contraceptive ci mmh. seen i parents mmh. yëguñu ko mmh. conséquences yi nag amaana xale yi dañ ko xamul moo tax ñu koy def te suñ ko xamoon duñu ko ko def ah, donc nañ ci ñëw ay doom yoo xam ne da nga koy dem jëndi naan naan mooy indi col yi pilule du lendemain gi kenn xamul voilà ay ay garab yoo xam ne da nga koy jël jënd naan te xamuloo lakka la lay def ñu bëri instant yi ñu ngi say 10 ans 20 ans 30 ans mënuñu am doom mm-hmm. loolu ah, yëpp il faut ñu wax ko non ce sont juste des points qu'on donne en l'air gars yi waxtaanee ci mm-hmm. en attendant ñuy ñëw dimanche incha ah. allah pochette xale jigéen. waaw fii la ci fees dell. Ah, ah, koo ci jege pochette bàyyi sama pochette bu ko laal nga xoolal ne bu ci préservatif yi. <laughs> bi moo ñuy wax li nekk ci pochetu xale jigéen ñi damaa damaa damaa damaa jooy daal. ba pare sànq ci débat bi daa am benn point bu bëgg a. séeréer dañoo jeexal ay ca soo ca ñëw bi après. waaw mooy ñu ñu ñu daaneel. parce que tey jii boo gisee am na parents yoo xamante ni ne mm. amuñu seen jotu doom. Mm-hmm. Ah, 6 heures du matin la ñuy xëy. Ah. wàcc 17 heures balaa ah. ñu yegg si kër gi 18 heures wala 19 heures. coono ah. googu ñu tëddaat nelaw. muy papa bu papa xëyee banque bi yaay xëy marché ba wala mu xëy place ba. Hmm. léegi xale bi moom bon bi ñooy nekk ci kër ga bon ba xale bi yàlla bu muy am benn 10 000 bu muy mën a neexal bon ba bon ba bu xale bi doon wàcc kër gi ba moins heure du ci wax dara. bu fekkee yeneen beneen côté bi. mooy yaay bi nga xamante ni saa yu xëyee mu ngi jéem ut lu mu indi kër ga pour xale ya lekk mu ngi yeewul 6 heures du matin 17 heures lay duggaat kër ga bu ñëwee bu jullee day sonn papa ji tamit xëy dem mason ji bu mm. ñëwee wàcc sonn mm. xale ba au mu am jom moom xam ni papa amul yaay amul mm. moom it bu xëyee bu ñoom xëyee rek mu gontoog mu xëyandoog ñoom dem ca xale yu góor yi ba 19 heures mu ñëw ca kër ga wala bu demul ci xale yu góor yi mu dem fi mu mun a bonee ba heure sàngam mu dem ñëw mm-hmm. am na yeneen xale yi tamit bu seen papa xëyee dem ñoom tamit ñu jàppale seen yaay ak seen papa tamit dem liggéey loo xamante ni bu papa ñëwee kat bu gisee xale bi xolam di xelam ak xolam dina sedd ak dal mais par rapport ak parents yi nga xamante ni seen doom yee tax ñuy liggéey lool lañ lay wax sama njaboot gi laa bëgg bu ñu màggee xamuñu kii te ñooñu ñu ngi yàq seen njaboot te xamuñu ngi yàq seen njaboot nan la ñuy yàq seen njaboot mooy bu ñu xëyee dem uti ju lu ñu am mm-hmm. c'est force bu ñu xëyee dañoo war a liggéey mm-hmm. kenn mënu ci dara yaay tamit bu fekkee daam lu muy occupé tamit bu xëyee par force day dem liggéey kenn mënu ci dara mais fexeel ba na nga am benn ndijaay boo xamante ni même bu liggéeyewul mhm. wala ñoom ñu jege seen doom yi am ci benn gisa doom da nga koy nampa da nga koy nàmpatal mhm. doom da koy def sa xol ba nga mhm. xamante ni bu nekkee ci musiba par force fi nga toog loo doo mënti def da koy sentir loolu dafa am ça existe sa doom am na noo koy tegee sa xol di waxtaan ak moom di ko nàmpatal bu nekkee ci naka su du noonu subitement sa xel day dem ci moom ah. te boo ko woowee day tiddee ñibbi mais amour, amna parents yo xamante ne amatul sax amour wala amnañ amour ndax koo jur bëgg nga ko mais amatuñu ben affection entre sen doom yi ba sen doom yi tey mën nañuy xey di toj dëkk bi mhm. da nga gis ay xalé yo xamante buñ la rombé ci mbedd bi nga ni ndeysaan kii xamul dara te mhm. óor que bu yeggee fa mu jëm la mu fa def buñ ko génne woon na ko fàng mhm. nga no nga waat ne yàlla ni ci def ko d'accord merci Aziz xam naa leen retrouver incha allah ci ci yeneen i euh, émission ci yeneen invitation merci beaucoup kontaan nañu maa gën a kontaan ci yéen dañuy tàggatoo mën naa tàggatoo parce que bi may commencé sànq sama sëriñ laa waroon njëkk a nuyu. dëgg la ah, sëñ Ateex Mbacke mu sëñ Fallou. est-ce que mhm. est-ce que sëñ Ateex sëñ di ziar ñëpp. Mhm. di ziar tamit suma boroom kër. man sama jabar laa jël def ko tamit ñu ah, sama jabar. laa jël def ko sama borom kër. waaw ndeysaan. xale 90 la c'est normal. dama ko ragal ba def ko sama borom kër dëgg la man ci góor yu faible ci laa bokk dëgg la nga lor say doom ah nga lor say doom loolu musuma leen lor ah musuma leen lor yaa ngi koy bàyyi xel xam la ma doon musuma leen lor sa jabar sa waru ko nangu li ngay wax nii moom nangu na da yor da yor pas juger la personne ni la bëgg li lay juger la bëgg non la bëgg pas non loruma leen xamal la moo tax ma ni moom mooy suma borom kër ci sens ma ko waxee su ma la ko expliquer di nga comprendre di nga nangu bu fekkee moom demul fenn saa yu xëyee mu ngi xool suba lu ma toggal lu ma lekk lu ma naan moom xëyul demul fenn jaayiwul demul marché dem ndugg lay def. toog ca kër man maay xëy dem wëri ñëw indi. wala ma xëy dem def beneen occupation ñëw ca kër ga. kon kooku mooy borom kër ga. mooy sama borom kër. fa laa ko teg ci borom kër gi. lenn rek moom bokkul ci wax ji. Ah. ci góor yu feebar yi laa bokk fa nga yàqee. non loolu ah, xam nga ni loolu neexal rek loolu damay neexal. loolu damay jéewal laa damay neexal. Sénégal booy defar sa la ay affaire daal. jéewal laa damay neexal di profité tamit di saluer si association bi ma mooy l' association des jeunes percussionnistes du Sénégal. ok ñu ma fi toogee ni tëggat sabar bu mag la. Ah association des jeunes. percussionnistes du Sénégal percussionnistes du Sénégal. ok non wéetuñu parce que tey jii àdduna lépp loo nekkuma fi nag di tudd benn géer kenn di ma mere mais lépp loo mënti gis parce que ah. tey jii métier bi ñu yor ñun mhm. c' pas un boo xamante ni c' est forcé que dañ ko war a tijji mhm. ndax dafa am pandémie bu dugg ci dëkk buy pandémie mondiale c' est pas national muy covid 19 tout à fait c' mondial kon tey jii bu yegsee mhm. tëggkat yi nañ comprendre par rapport ak benn boutique bu ñu tijji koo xam ne mu ngi fay impôt kooku mën na bañ tëj wala ci marché yi ñu jël exemple waa marché bi bu marché amul duñu lekk maa ngi nuyu waa association bi ñëpp mm-hmm. nuyu suñu waa kër mm-hmm. nuyu yaay daaru bi mm-hmm. siré sama benn doom nuyu naa ñëpp di leen sant nag di leen gërëm parce que thème bi ma fa laa fi fekk mooy te mu xëccoo parce que per yow ñëpp la ragal père dañ ko ah. mu nopp tey Serigne Bamba eh. billaahi man loolu a métti du loolu de sànq bi ngeen ma woowee sànq bi ngeen ma woowee man toog fi ma toogoon noonu centro ba gars yi ne ma góor a benn booy bu la bëgg. ndeysaan góor a fu ne. moom wesu faa fii la dëkk. mën naa koo gis ginnaaw daf bëgg. papa a bëgg ñëpp. Ah, waaw waaw ko mën na te bu ñu génnee léegi suñu génnee ma woo ko waaw. est-ce que maa gànna Birane Xuma la. d'accord ak Biram Xuma mii Colobane. ah Evans. Uh-huh. waaw biram xuma. biram xuma ba affaire ah. julo tamit noonu la la bëggee. ju ma mën nga ma leen doon. Uh-huh. wan ma leen ñoom. waa léegi waaw. ñu <laughs> ma bëgg woon ah. man paa bi pour man su ma ñëwee. parce que ñëpp dañ ma ne. boo demee li ngay mën a wax yëpp paa bi nga fay fekk. boo demee da lay contrer man leen paa bi. monté monté ku baax nga tu as été sérieux. waaw kii ak yooyu bëttoo 90 ba. mais soo jalgati woon. mais il faut mu am émission xëccoo waa Banjul. man dinaa fi ñëwaat jeex na waaw yal na nga ñëwaat ak jàmm ci barke borom Tuubaa mais ñooñu sant maa ne te bëgg ma. ah après suñu génnee dinaa la jox nga jox leen sama numéro nu téye ko. ak Blaise Migo. yow ñu la bëgg Blaise Migo. ak Khadim Diagne. <laughs> président ASC Teranga. ASC Teranga ah. dafa am ku tudd Famara nekk fii ci xale yi. Uh-huh. mais dafa la xale daal papa. Famara Diédhiou kooku sama sët la. noonu la tudd. ba footballeur la Khady Ndoye Diagne mooy yaayam. est-ce la. est que du moom du du xam ci xale yi daal def lu ko neex. kooku du def lu kooku du tooñ kooku du tooñ. ayca kontaan nañu Sow. non non du tooñ. Ah, Famara euh, Famara Diédhiou maa ngi lay nuyu bu baax a baax. <laughs> est-ce que ah, ah di nuyu Pape Ilimane Pape Alsane. donc li may wax rek mooy ëllëg du añ du reer du saraxe mais lu mat a séddu la. wallaay de parents yi. Hmm. dañu war a surtout ñi nga xam ne dañ leen dénk doomu jàmbur yi. ak ñi nga xam ne dafa dogal ñu dem ba daj ci war yar doomu jàmbur. ñu def si li nga xamante ni tey bu fekkoon seen i propre doom la ñu def ko si. te xam nit màgg na fi tekki te tekkeem bi du ko santee ku ki nga xamante da koo yar te ab sac la. te ñooñu ñooñu tamit mënuñu lu di leen gën a encouragé di wax ne yàlla nañu yàlla may mag yu mel noonu. ndax mag yu mel noonu ñooy defar ndaw yi nga xam ne bu ëllëgee ñoom ñooy yor société bi ci yar bu baax ci yar bu ànd ak yërmande même parfois sax yar bu ànd ak xadar parce que sa dépend profilu xale gis naa benn internet sànq naan yar du am yërmande ankañ xale dina judduwaale sa koo xam ne soxlawul nga dóor ko pour mu dégg li ngay wax ñu bëri nag Sophie mooy xale yi yàlla yar ci suñu tem bëri na ci société bi xale yoo xam ne yàlla moo leen yar ndax fi ñu jaar moo tax ñu am jom moo xam heure bii ñuy wax waxtaan bi waxtu bi bu fekkee xale boo xam ne yaa ngi yaroo ci kër lu mu metti metti metti man maa ngi lay jox conseil nga muñ ndax li may wax ëllëg du añ du reer jom mooy faj lépp xale moom su fekkee am nga jom loo dund lu metti ci àdduna lu ne lu ne fexeel rek ba ca kër googu tey lu metti li di jóge rek ci ci ndeyu jiitle baa baayu jiitle mais yow bu mu jógee ci yow ci wàllu manque d'éducation wala ñu lay teg loxo di wax ne nii nga yaroo nañ ko jël rek wékk ko ci jom ci fulla ak ci fayda te nag ñu xam ni bëri na fi bëri na fi de ñu ñàkk seen xel bëri na fi ñoo xam ne gàddaay nañu bëri na fi ñoo xam ne heure bii ñu ngi tëddaalee naqate kenn tergul leen ko ku dul kilifa li may laajte mooy rek su kilifa yi melee noonu ñun xale yi nan la ñuy mel kon nañu tàppe xol yi rek ni ko maam Abdou doon euh, doon waxee te doon benn euh, pros merci beaucoup madame Diallo dama koy tënk rek rapidement ci ñetti mbir mhm. da nga wax sànq waaw ah, bàyyi bu papa jël da wax sànq waaw ku yàlla yar mhm. wala ndax wala wala yar te yàlla tax hmm. xam nga tax amul pertement hmm. ñett la u yàlla fay la ko ci yow directement hmm. wala mu fay ko sa njaboot wala société bi te boppam taxawal la yow xanaa xamul ne nit sonn na ci nit ba bis ñëw war taxaw société bi yëpp reconnaître ne ah mu ne diw bi ne li mu daj ci diw kenn daju ko ci loolu rek doy na reconnaissance nest pas donc en tout état de lu ci mënti doon. Mhm. yar te yàlla tax amul pertement. dëgg la yàllaa lay fayal boppam. wala mu fay la si sa njaboot yow. wala société bi si boppam. jox la yow sa wàccuwaay ba ñu xam ne kat lu am tey jii. Mhm. gannaaw yàlla ak yonente ba yow la. Mhm. doy na doy na ndam. dëgg la c'est important. jërëjëf monsieur Dieng kontaan nañu bu baax a baax. merci beaucoup euh, maman Oumou. waaw merci beaucoup Sophia benn message rek laa am lu may lancé dama koy lancé sama moroomu jigéen yi yaay yi. ndax nee nañu yaay mooy sookul société yaay moo féetewoo yar nañu fexe ba doomu jàmbur bu nu gis doom ju nu gis nanu ko téye ni keroog ba ñu téyee sunu taaw njëkk a jël sunu ween jox ko mu di ñu xool bëtu cofeel ñu di ko xool bëtu yërmande doomu jàmbur bu nu gis rek nañ ko téye noonu di ñaan it xale yi nañu am dégg-dégg dégg-dégg am ku ñuy waxtaanal am ku ñuy ku ku ku ñuy euh, ku ñuy confié wu ngir mu mun leen dimbali si jamono ji ndax yëf yi léej na léeg na léeg boo xamante ni xale yi ñoo war a dellu si gannaaw yaa way jur yi nag yaatu digg gannaaw ngir ñëpp mën a profiter si yëf yi merci beaucoup bien merci à la prochaine incha allah. am ah. Gora men. waaw mooy ki nga ma doon wax léegi. léegi léegi mu ngi nii kenn moom. mu ne mi ngi ñëw fii. bu ñu ma jox ko sa numéro suba mu indi la sa téléphone. ah, ah numéro bi fu mu koy dugal. Ah, mu ngi nii daal xam naa bu ñu paree léegi. mais Aziz bi la yes si moom. Ah, kan j' étais fait de la publicité ah ñoo ko bokk téléphone bi. bokk <laughs> naa la ko léegi nag bokkuñu téléphone bi nag. boo paree jiili ñëwee taal taal ak mbay sax wax nañ ci. ñoo ko bokk boo ci amee ñett wala ñeent amul benn. waaw waaw ma ma xale yi ah. bu fekkee da ngeen di ruubee sama papa dina leen ko jox téléphone bu baax ci yéen. su fekkee doo ma jox téléphone la waaw su fi góor gi si jeen nekkoon moom su fi góor gi nekkoon wala femme mais kii waaw du ma jóg taal sama oto dem ba foofu nu kii nu kar ma foofu ndax man mën na am man waaw li ma wax te xam naa dina ko def nee na père day am téléphone. Ah. léegi kii bu ñu génnee léegi moo ko mu paase ko. papa di téléphone yi mu nar a am xanaa da nga koy gàddu. numéro madame nga xëy jox wala numéro kenn ku nekk ci kër ga. maa ngi nii man waaw man numéro doomam. moo gën a wóor waaw ah, Babacar muy léegi jiri parce que fi nga toll nii ay waxu dëgg. mooy sa doom bi nga waaw waaw sama la la bëgg indi baal la ak baal ko devant tous les mooy ki nga wax ne dafa woote États-Unis xaw ma lan Baye Mbandione nee na goro la kooku mook waa caaro yi waa kii ba kii kooku Mati Diagne Fall moom mooy yaayam. nee man defuma ko dara jotee ma moom dara kon kooku oh mais baal non yii bu leen ma jaxase àdduna moo wax waxam li mu wax mi ngi ci net bi moo ko wax nee na yow la ànda xam na sa xarit la nu mu def ba am sa nu mu def ba nu mu def ba am ay données Sophie Gueye dama ne bu leen ma sot nan la def ba am ay données Sophie Gueye dama ne oh déglu leen ma sëtub Lamine Fall dara ay sëtub dara ay non waa Caare Géej mere na la ndax li ma bëgg a wax waaw noppi naa waaw wax ak ma fi ndax nangu wuñu li ma wax. jéggalu ma wax li ma bëgg a wax. waaw man ma mais da ngeen may wax li ma bëgg wax. nangu ma wax. kii ngay wax moog bàyyi ma njoon. doom yëkk nañu ak doom wàllu kii ku jigéen kii doom yëkk ak doom wàllu doomu bàjjen ak doomu nijaay ñoo bokk ndey ak bàyyi mu toll ci États-Unis uh-huh. mu nekk ci digg débat uh-huh. mu metti ba metti ñëpp di ma uh-huh. bon waa am من خملي جنيه لسه فين بون باي كوميرسي بقى بعد ما يا يا ولا نخري خمنا كرك يا يا يا يا يا da nga may bàyyi doo may interrompre dama ne on s'est respecté loo may interrompre dama ma doo ma interrompre doo ma interrompre ah, mais bàyyi ma sama temps d'antenne laa yor mu bàyyi ma ah mais doo ma bàyyi waaw baax na waaw di nga ma bàyyi waaw waaw léegi baax na waaw ah, waaw baax na eh, waaw waaw baax na waaw waaw ah. baax na xoolal fee du crasé loxo yi non oh, bàyyi sama ko bàyyi sama na ne duñ ko nangu ndax dafa rëy dafa rëy duñ nangu ma wax déedéet nangu duñ na noo nekk man ma yor doomu nijaayam kan kii mooy wax ne naa ko jéggal ma yor doomu nijaayam di ko yóbbu làmb sama bakkan war caar mu na des ma yóbbu ko première édition Agri Bordeaux mhm. mu metti lool ñu match nul ma indi ko dégg nga uh-huh. deuxième édition ma ne ko bàyyil jàmbur mu ne duma ko bàyyi ma ne ko kon demal mu dem gis te la mu gis saa yu ma ko teree su demee gis moom mu xam loola ne ma da tudd sama nijaay di waxtaan ak sama nijaay di wax kay di wax ci sama nijaay muy Serigne Ablaye Diouf Fall papa yi bàyyi man doon ci en pleine émission mu tàng ñépp di ma sot mu dëkk Caaroy Géej ndeyam dëkk Caaroy Géej mu nekk mbaaw gi duggee ca Amérique xam nga dafa am ay données kii ndax kii mooma ne léegi ne na nga ko mu ne ma ànd na ak kii ànd maanaam daal may na doole ñu fi nekkoon. waxtaan na rek Papa. mais dama ne waa Caaroy géej waa Caaroy géej yëpp a mer. dañuy ànd ak yow bàyyi ma. waaw baax na rek Aziz s'il te plaît. am naa ay doom yu nekk États-Unis ak yu nekk France. ñoom Oumy Gueye Oumy Gueye mu nga dëkk Caaroy géej doomu Baara Gueye la. barka Borom Touba Mbacké ma nga càkk kii ma nga càkk en Normandie nee na ma papa ma ne am ah, mu ne ma barka Borom Touba koy xulool ku nekk yow laay faral suñu wéetee soo tooñee ma yedd la. Adji Fatou Gueye sax ngi Belgique. d'accord kontaan nañ merci beaucoup Père Mbaye Ngoné Fall xam naa ñu retrouvé yu incha allah dimanche. Mm-hmm. xam naa dimanche moom sa thème lay doon ndax li nga bëgg a wax xale yëpp. waaw yëpp yëpp yëpp xam naa dimanche la koy wax. Ah, man man du ma fen de. moom moom moom moom du ma fen. suñu duggee ci thème yooyu duñu baal duñu may dara donc incha allah dimanche mais non non non man yàlla daf may àtte ak ñoom. dëgg la fii laa taxaw ne. may wax moom mii mu taxaw daan ne eh, soo fi maye 14 ans doon lay tëj ci kaso bi moom mii après ñu gis xale yi 14 ans ñuy def naka su dul noonu dëgg la papa dëgg la xam nga mag moom day toog fu mu toog di gis. lu bëri sa pap ñeneen ñi suñu téye waaye moom maamu bàyyi na la waaw bàyyi na la bàyyi na la barka Borom Touba Mbacke. maamu bàyyi laa wax. loolu position duma ragal de. man duma ragal de. position moo ko duma incha allah daal di continuer prospère merci merci beaucoup. waaw eh eh. merci beaucoup lii la la papa oto ba la. sa oto. Oh. Eh, eh. waaw waaw léegi léegi léegi léegi. waaye yow yow tamit. mbakka boobu ah kon da nga mën a dawal. wala lii wala accélération bi yow. Benoît gisuma fu mu nekk waaye xol ma la jox nga Benoît fi mu nekk dama ne yow da ngeen ko def bàyyi émission non nan yokkaat deux heures nan yokk at nan yokk at deux heures bugaan wax leen nu yokk at deux heures. ah wàcc ba. ana xale yi. li ma bëggoon dama koy def. du xool. papa yaay dawal bii. waaw dama ne ñi kañ nan ma doon filmé. waaw waaw waay waay waay di am. waay ñoom ñoom. d'accord merci beaucoup. merci les gars. waay Samba. Eh, man daal man de. xale yaa ngi ci bi de sax ci internet. ñoom ah, xale yi ah. sa technicien yi ñoo xarañ. waay barka borom bu baax. dafay bàyyi seen tiir yi ndax amul si émission. nga ne nee na yaa ni carrément dootoo dugg gis-gis da ngay bàyyi seen. demul fenn ah du dem fenn wax xeet nga de. waaw léegi dañuy tàggatoo. demul fenn léegi da ngeen may may ma tàggatoo. comme ça ñu ana sama xarit bi maane. nan maane góor a maane léegi ñu woo. Eh waay góor a waay de Fapal. Fapal góor a maane est-ce que waali wayu ko. moom la. Ah. barki Serigne Bamba moom la moom la waali woy moom la ne soulagé ni dama ko bëgg xoolal encore non damay kan moo ko filmé laa wax lii xam nga fépp koy waaw ndax foo toll bugaan nag lay gis ci booru kër gi. waaw bugaan foo toll fi mu ne mi ngi lay. détresse pour la ah détresse pour la détresse pour la. loolu mais les jeunes commerçants de masse non newoon na du takk si suñu génération bi ñoo ci gën a jekk ba toog ci wet. sama oto ah, papa. comme oto marié. ma ne lay lay lay. signal détresse. lañu koy waajal ma ne liñ koy waajal lii toog si kanam. léegi oto bi gën a dëgër na sa xol dëgër dëgër na ah. oto bi dafa rafet macha allah. oto bi moom nañ la ñaanal yàlla mu rafet jàmm. waay non yaa baax. bala Abdou Aziz. loolu rek laa ñaanal. non ah. mais xoolal waa ci bi mu rafetee. ah oto bi benn nit du ci yéeg de. ñaar il faut keneen toog ne. waay waay waay. non man daal dëgg dëgg la dëgg la ci. léegi waaw bàyyi leen oto papa bi bàyyi leen ñëw leen léegi da ngeen may may ma tàggatoo comme ça. léegi kii ma non non ah non xam nga. oui man da nga am caaj nag. ah da nga am caaj ni nga wàcc. maanaam ah mais mais. mais man pilote la non barke ba non non non non yéen yéen noppi leen de taw leen. <laughs> nga ne la. gaal la la war a gaalu lan ah gaal de bay ah eh, noppi leen bi yàlla papa kontaan nañ donc ñu ngi remercier bu baax Bougane Gueye Dany content euh, nañ bu baax ni nga séddale ci xolu papa yalla na ko yàlla walay walay bu merci beaucoup on se retrouve inshallah mercredi merci à madame Dieye maman Bay, Aïtima design euh, chemise du ma mom moko moo du prêt à porter mom moko ko donc maa ngi koy gërëm bu baaxa baaxa baax a baax ci de yére da koy def yére tubaab aussi 77 972 50 58 77 972 50 58 ñi ngi donc bo leen rek inshallah allah ñu fa fekk euh, di remercier bu baax Maymouna papa

nee na machine ba dina ko jëli këram ñëw teg ko nu tàngal ndox ba mu tàng ma dugal sama tànk nee na mu commencé di ko tël ak ni ko fexeel bu boo fi ñëw dimanche ah bu fi indi motard nag motard ah on se retrouve nee na machine bi kii waa ci biir waaw déggal ma les commerçants de marché prenez soin de vous gardez la paix ciao ciao